Bienvenue sur Salam Vision. Ah, ak leeraayu lamp ya miraayu baba bo ëskey waa xuusil xool Seydina Muhammad yow yaa jooy yaram wa li tax màkka ak leeraayu lamp ya miraayu baba bo ëskey waa xuusil xool ñu naan fa dem jigéen fa dem laal laal ma ngi ñaan képp ku bëgg dem bàkk ñu wax incha allah ay waay ñu naan fa dem jigéen fa dem incha allah Sénégal asalaamaaleykum mbokk àdduna asalaamaaleykum comme saa su ne bu bu ngeen ñu gisaatee rek amaat na lu tax ngeen gisaat ñu tey ji Dakar lañ jógee ñëw nañ ci dëkk boo xamante ni dëkk bu yéeme la dëkk bi man bi di wax ak yéen sax mënu ma leen a wax dëkk bi tur ba nga xamante ni moom lañ cosaanoo parce que tur bee xaw a rëy ci man damay bàyyi sama paapa mi nga xam ne tey moom laa taxawal moom mi nga xamante ne dëkk bi ci biir sanc ci biir dëkk bi am na lu bari loo xamante ni fekkee na ko fi tey ji buñ nee ki fi njëkk a jàng ji école yaakaar naa ni jëmmam ji doon na ko dañ koy bàyyi mu présenté wu mu wax ñu moom mooy kan papa ñu ngi lay siyaar salaamaaleykum wa rahmatullah aousubillahi mina sheytan rajim eh, fii mooy Soudiane Balla eh, dëkk bi dëkk cosaan Eh, ni mu nekk dëkk cosaan dafa ëmb dëkk yu bari ñu ne si ginnaawam te fii lañ cosaan c'est-à-dire seen baay bi ñu juddoo fii seen yaay fii lañ juddoo eh, dëkk bi nag bala jara moo ko sànq bala jara mooy sama maam bala jara sangi jara ngolo jara amadou jara ne moussa jara amadou jara moo tabax école bi c'était en 1976 lañ tabax école bi muy ci biir toolam parce que mu ngi nekk président comité rural en 1975 à Diofior mu nekkoon suñu commune bu ñu posé problème école fan la ñu koy defee mu ne ko man naa joxe sama tool muy fii sama toolu baay la mais ba fa école bee la yaatal ko tey Abdoulaye di dox di dox di dox di dox ba man bii di wax ak yow nii je crois que dëkk Soudiane Bala bi maa fi njëkk a jàngee école maa fi njëkk a dugg école di jàngee joof yoor donc eh, boo ma laajee laaj ma laaj nga ma lu ma xam laaj nga ma loo xam ne sama ndey fii la juddoo sama baay fi la juddoo te dëkk bi tamit sama baay def mu soxna mu ne ma fii boobu c'était en 1981 mu am eh, benn sécheresse bi métti bi fi am ñëpp di toxu ñi dem Samba baabu kar mu woo ma mu ñëw mu na ma doom mu ne ma mu ne ma dëkk bi nu mu tudd ma ne ko Soudiane Bala Diarra mu ne ma kuy Bala Diarra ma ne ko sama maam mu ne ma ñëpp bu ñu doon toxu yéen du ngeen fi jógee kon dëkk bi yéen ay borom donc loolu lay duggee entrée bi parce que suujaan mu nga nekk diggante Sorobougou Soudiane Thilem Soudiane Daly ak altu mi altu ay séeréer la fi de dëkkoon croisement la woon croisement fi ñu naan altu altu c'est-à-dire booy ñëw foofu ngay njëkk a stoppé doo ko dugg Soudiane ndax dugg cosaan la balaa ngay dugg dangay ngay yëglu ñu dalal la nga doo ko dugg moo taxit nag balaa maa dugg damay ñëw yëglu ba pare ñu dalal ma ba pare ma doog a dugg waaye li waral dalal gi dafa am lu ko waral parce que bu ñalan parce que yoonu diine ak diine moo tax tey ñu dugg fi tey mu nekk bis boo xamante ni ah, tey la ak suba tey ñu am ay bis boo xamante ni bis bu ñuy def la tey buñ ne yoonu diine rek daanaka yaatu na tey mu nekk loo xam ne tey ay jàng la jàng ñu ne jàng mooy tey ji dafa am seen màggal bu ñuy def maanaam mën nañ ko wax màggal mën nañ ko wax gàmmu waaw manaam tey ci yoonu diine la tey ji yéen naka ngeen def tey ba organiser li nga xamante ne tey mooy bisub jàng yi waaw c'est bien loolu nga wax noonu man mii taxaw di wax ak yow nii eh, mun naa ne kii ma tuddee kilifa la woon Ndiassane moo tabax étage bi amul fondement mu Cheikh ko Baye foo taxaw tund Ndiassane nga ne kuy Baye Sidi xam nañu ko ndax jamono mu ngi tombé jamono sengoor avion daawul tiim Ndiassane la may wax ne aussi jàng yi sama baay moo ko fi njëkk a sama baay a fekk am benn oustaz bi ñu naan oustaz Lamine Senghor mu am benn xaritam muy Arfang Baas mu ngi dëkk Diofior moo fa njëkk a organisé gàmm adduna di dem di dem di dem benn sujan amatul benn programme sama yéene gu rafet j'ai un cousin papam ak sama yaay ñoo bokk ndey ak baay ñu ko naan góor gi Fall man na ko góor gi ma ne ko man na sama mébét mooy su yàlla bëgg am nañ jàkk man na ko am juma gi mooy damay organiser ay jàng jël Mbaye Ndiaye la ma njëkk am comme recette nañu ko def ñu def ko fondation juma suñu borom nag mooy eggal yéene gars yi di maye juma ñu far maye maye lañu juma kon sama yéene egg na donc maa ngi ci sant yàlla sant yonent bi sant sama ndey ak sama baay man sama waajur yëpp ay xaadir mais man nag murit laa ndax sama kër gii fii laa tuddee Daaru Xudus laa tuddee Touba Soudiane Daaru Xudus man waa Daaru Xudus laa man waaye samay waajur bu jigéen dafa bokk ak waa Ndiassane dëkk bi nag dëkku xaadir la ñëpp ay xaadir lañu kenn ku nekk nag sañ ngaa féete jël yoon bu la neex waaye nag bu dee dëkku cosaan ngay wër ci juróom-ñaari tund gii ci juróom-ñaari koñ gii dëkk yi moo fi jiitu kilifa yi bari jóge nañ fi. ñu bare ngi jóg yëkkati seen baat tey ci wàllu xam-xam ci wàllu xam-xam nit ku ñuul ci ñii fi nekk ñoo leen sut te ñu ngeen ne nem ne maaral kon donc dëkk la boo dëkku faju ko aaju la wallahi wal asim loo fi dugg ak mébét suñu borom dina ko faj barke Seydina Muhammad masala masala dégg ngeen ko nee na ne boo fi duggee ak sa mbébét yaakaar naa ne yàlla sumbam dana ko saafa ñu nag mbébét gi ñu am mooy yàlla nañu gudd fan yàlla nañu am wërsëg goo xamante ni mën nañ cee dundal suñuy waajur ndax yaakaar naa nit ki booy ñaan da ngay ñaan di gën ci yow bu gënul ci man nag yàlla buñ ko am waaye bu gënee ci ñun yalla nañ ko am loolu la ñuy sàkku gudd fan ak wér ndaxte buñ amee rek famille bi am nañ buñ amee rek mbokk àdduna yëpp am nañ kon papa kon yaakaar naa ni ci entrée bi la nekk mais dañuy dugg appel ci biir parce que su jàng bi tey ji dinaa leen wan lépp en direct ndaxte buñu leen en direct xam ngeen fi ngeen koy jaar xaar leen ko bi Salam TV xaar leen ko tamit ci biir Kiki TV ndax yaakaar naa ni ñaari ñaari télévision yooyu lëmbee na Dakar lëmbee na àdduna kon dugg na fi kon yaakaar naa dëkk bi ñu nekk tey lañ leen di wan lépp ci kanam rawti bët damay dugg ak yéen yegg ak yéen war leen fa ñu baas fa nga xamante ni fa la ñuy defee yi ànd ci ak moom mu am toujours loo xamante ni daf ñu ko fay tijjilaatal ñu tëj li si des après ma wan leen ko incha allah papa ko ñu dugg ci. jërëjëf Fadal bisimilah. alhamdulilah kon nag ñu ngi dem ci biir alhamdulilah. ba léegi comme niñ leen ko waxee woon ci entrée bi dugg nañ ci biir dëkk bi dugg nañ fi nga xamante ni moo waral bis bi bu ñëwee moo waral bis bi mooy fi nga xamante ni fa lañ baas. fa la ñu war a màggalee bis bi nga xam ne mooy bis bu sell bi ba léegi dama koy bàyyi sama papa tam ci biir kaddu gi moom mu am loo xam ne tam dañu koy leeralaat parce que am na tamit keneen koo xamante tam suñ papa la waaye mu ngi suñu wet waaye balaa ma ko jox tamit micro bi dama koy dëkkaat sama papa mi nga xam ne moom laa àndal ci entrée bi duggaat ci biir euh, dëkk bi papa dugg nañ ci biir dëkk bi jërëjëf ñu ngi biir Soudiane ci biir penc bi leen ci eh, juróom bu jigéen moo boot sama yaay sama baay excuse baayam moo nekkoon élimaanu noddukatu dëkk bi muy muy naym bi muy bilaal bi baayam la woon léegi yàlla àddina ndox ba tey moom mooy chef de village bi ndax sama frère moo ko doonoon yàlla day jële ko fii comme dañu koy wootante moom mu daal di ko jël kii moo yore dëkk bi tey ginnaaw yàlla yonte mooy chef de village bi bàyyi la ci manit doom laa ci moom wax dëgg yàlla kon bala ma ciy sore naa ko bàyyi moom it mu sànni ñaari gën a selam ay ay parole ay kàddu ñu doog jàll si leneen jërëjëf alhamdulilah ah papa gannaaw bi nga xamante ni kat kilifa ki kat yëkkati na kaddu yi tamit jox la ko yaakaar naa ni dañ lay bàyyi uh, kàddu gi nga am loo xamante ni yaa ñu ko gën a xam ci biir dëkk bi nga tàggat nu ci wàññu dëkk bi nu dëkk bi tëddee. Eh, jërëjëf. auzu billahi mina shaytaani rajim maa ngi lay nuyu si ku nekk ci suram ak santam eh, comme ni ko waxee la moom baayam eh, yaayu baayam ak sama papa ñoo bokk benn ndey Eh, li mu wax ni mu ko waxee la chef du village bi nag jara waa Jarakunda la woon mooy maamam dëkk bi ñu ngi koy sànc 1912 mooy Soudiane Bala bu ñu ko sàncee premier chef du village bi mu ngi tuddoon Maha Jara Maha Jara dafa dafa ñibbi Mali et eh, ki ko remplacé eh, ñu ñu def def ko kii Bala Jara mooy maamu ki jur baayam kooku moo remplacé Maha Jara mooy deuxième chef du village bi Bala Jara bi muy gaañoo taawu Bala Jara ngi foog ñu koy am Moussa eh, bu Jara kooku lañu topp saloon ci papam yàggu fi kooku dem eh, jarbaatu eh, baay ji ñu koy wax Moussa Jara koku ñëw yore dëkk bi Moussa Jara moo yore dëkk bi ba yàlla jële fi Moussa Jara Bakay Jara ñëw Bakay Jara sama yore dëkk bi ni la ko Bakay Jara di wax ni mu la ko waxee laa Bakay Jara moo yore woon dëkk bi bu bu muy wax représentant dëkk bi la woon man mii tamit may représentant eh, année bi Ablaye Wade jëlee nguur bi la dem premier touchement ceeb bi mu joxe woon dañoo dem mairie année boobu boo fekkee Soudiane amuloon conseil chef de eh, comité bi président comité rural ne eh, chef de village Bécaye comme dem nga ci mag damaa bëgg nga woon ma fi ñaari xale yoo xam te ne réunion dina fi am du réunion bu ne borom dëkk da ko war a teewee mais am na yoo xam ne Euh, conseiller da koy war a teewee borom dëkk ko te comme la amu leen conseiller ngeen bañ a tardé euh, réunion euh, comité kon mooy war ñaana xale mu wone ma man man mii Souleymane Traoré ak Alhamdou Diarra yàlla defoon nag papay Alhamdou Diarra dafa wàññeeku woon Bakay Diarra bi may wax nii jëloon yaayu Alhamdou Diarra comme des fois day fanaan fii kër boxom ñaari fan dem fanaan kër Alhamdou Diarra ñaari fan yooyu wooteet na am mu yebal Alhamdou Diarra ko itam ne ko parce que yëpp même famille ñëw na naa ba sama kër wax ma wax ji ma ne ko non du ma ko gisee lenn parce que nga nga fanaan eh, néegu yaayam ñu woo la réunion nga ñëw ne man ma man rakk la kee doom la nga bëgg maa jëlee fii du ma koy mën loolu jaaduwul ko loolu def ma ko benn problème eh, ñu ñuy dund ci kaw loolu ba yàlla def kay tamit ñu eh, ñëw jiitu bu bakay jiitu kër ga laa toog waa dëkk bi def délégation moom si ci gars yi la bokk mhm. ñu ñëw ne ma pour ma def chef de village ma ne ah man fi mu toll nii sama wér gu yaram noonu ñu ne li ñu bëgg mooy dañoo bëgg nga yoral ñu dëkk bi soo mu am ñoo xam ne borom kër lañu ay xale lañu mais ñu jël volonté léegi fu ma war a dem wuyu ci su ma mënul dem ku ma ci yónnee ci ñoom dañ may demaa te ci naa ñu ñu dem ñëwaat wax ma ma ma ne kon d'accord na eh, bi ñu demee na ba fal chef du village ñëw su préfet ñëw fii pour falma eh, xamal laajte ndax damaa posé candidature wala dañ maa ma ne ko waa dëkk baa ngi ni teewee posuma candidature dañ ma dañ maa tànn dañ maa tànn jiital ma joxoon naa ngante nag mais force nañ ma ne naa ko yore su ma fuñ ma foo ma soxlaa xam nga sous-préfet moo fi nekkal euh, chef de l'État foo soxla yow euh, su ma mënul dem ci xale yi ku ma ci yónni mu demal ma man loolu moo tax ma ma falu waaw tey jii tey jii maanaam wax ji day nekk wax joo xamante ni maanaam yaakaar naa nit ki fa nga dëkk am na loo xam ne boo ko fa melee rek doy nga waa dëkk ba parce que waa dëkk bi boo leen doyee rek yaakaar naa ne carte taxul ñu ne dañ laa fal parce que képp ku ñu fal ndax carte yaakaar naa ne danga naan lu ma neex laay doxale ndax carte yee ma fal waaye comme que nit ñooy déggoo seen biir ànd ak yow fal kon yaakaar naa ne kon dëggu gi moo fa des ba tax ñoom ñu jël la fal la tey ji bisu gàmm gi tey ji màggal gi nga xam ne tey yéen a koy def tey ji bi tey ji lan ngeen sentir tey ji tey tey ji ci mbégte ah gannaaw mbégte parce que li ma wax ba léegi lii gàmm bi dëkk bi dama lay wax cosaanam il faut ma wax lépp parce que gàmm bi bu njëkk bi suñu yi nekkee toll ci borom kër ñoom ay bala la ñu xamoon ay jëmbe yaa ngi dégg ñuy dem loolu saa papa mi may wax ni catégorie bu ñëpp dañoo jàng alxuraan parce que bi suñu maam yi di ñëw fii presque ñu si ñu si bare ceedo la ñëwee fii ñu ngi jébalu woon Njaasaan ñoom yëpp ñu dem di jàngi di ñëw sama papa mi ci ci mujj gi mos naa yore daara kër ga di jàngal alxuraan ñuy def loolu ba xale yi ñëw ne léegi eh, dëkk bi dafa am sarax bu ñuy war a def at bu jot bu ñu demee ba nawet bi nawet si dañuy def sarax dañuy jënd gàtt xar benn melo rey ko woo waa dëkk bi yëpp li ñu koy rey naa du mbiru ceddo dañ parce que ci jàkk buti jàkk bi lañ koy yóbbu ñaan ci yàlla e ñaan ci suñu nawet bi ñuy jub si yàlla ci yàlla yóbbu jàmm ñu rey xar ba keroog bokk waa dëkk bi yëpp gan gu fi romb sax ñu ñu arrêté la nga añ fi xale yi ñëw naa ne léegi loolu ñoom dañoo ñëw bëgg a def daayira pour jàng bi li ko taxoon jug mooy kër gi jumaa ji dañuy def eh, eh, jàng bi at bu jot recette bu ñu am ñu ñu ñu ñu dajale ko di ci def biir ndànk-ndànk pour mun a am juma parce que foofu ne dugg nañ fa pour am juma mu te teeñu eh, yàlla mu ba tey ñu commencé ko noonu xale yi commencé jàng bi bi ñuy commencé di jàng ba ci biir am na ki fi ki ma ki ma remplacé woon ki may wax noonu alhamdulilah. moo moo comme moo nekkoon représenté woon chef du village mooy ëpp lu muy déplacé xam nañ nag dem na ba dégg nouvelle yu ñi ñuy defal jàkka ji mu xam ñu ngi mbébétoon di ko euh, gàmmu gi si di mi ci boppam sax na fa ay ay jàng pour jàkka ci yaa ngi dégg boo yàlla def nag alam du di dox ba dem dal ci ki nga xamante ne ñu ngi yore alalam pour di ko financer ndax jumaa mu ñëw wax ne woo ñu ñu notable yi wax ñu ko ñu ne ko loolu ko amul ñu woo xale yi parce que ñu tam ak nu mu ne suñuy doole xale xale yi la yenn liggéey yi mënuñu ko Eh, ñu def loolu yàlla def yàlla dimbale alhamdulilah mm-hmm. boo gisee ñu am jumaa ji daal mm-hmm. gara eh, yàlla ak moom la parce que ci loxoom la jaar ba ñu am jumaa ji tey e boobu ba léegi nag at bu jot mm-hmm. ñu ne léegi kon liñ doon saraxalee ci jàkka ji dañ ko bàyyi comme tey ji nii wàcc nañu alxuraan ci suba dañuy toog yi laax wàcc alxuraan ñaan yàlla lépp lépp lu ñuy musal ci seytaane jubal yi si jàmm ñu ñaan ko lépp ñu ne ñuy def loolu Eh, comme saa yu ñu ne comme tey ci guddi la mooy doon eh, eh, jàng yi ci bëccëg bi ñu def loolu te loolu def nañ ko ba pare loolu daal mooy sababu jàng tey yi mhm. jàng yi tamit waa waa Ndiassane la Cheikh Cheikh bu Diop mooy ñëw def si jàng yi mhm. at bu jot nag ah yàlla alhamdulilah rabbil alamin at bu jot nag dañ ci gis loo xamante ne daaw gisuñu koon mhm. bon am na ci sëriñ koo xamante ne tam ki ñuy wax Ahmed xalifa Ahmed Khalifa Kunta Ndiassane léegi mooy ñëw fii mhm. bi ñu demee ñu dem ci moom mhm. presque moom papa moo ëppoon lu muy fréquenté fii mhm. parce que man mi ngay waxaan ma nii sans papa sans papa ci papam la jébalu woon yàlla def na xale yi dem di daal ci kaw muy ñëw fii su ñëwee fi na lu mu ñuy xamal njaboot gi balaa ngeen di wax man sëriñ topp leen seen ndey ak seen baay bu ñu jàng pare ñu ñëw ñaan talal ko loxo ñaanal ñu yàlla e Soudiane dañoo bëgg mu jëm kanam mu ne bu soobee yàlla Soudiane dina jëm kanam bi mu ko waxee ba léegi kër yi fii ay néegu ñax kese la boo beneen ji nag ngi gis yaa xoolal sa bopp du ay yu rafet nag mais xanaa ñu fi des ñu ngi sant yàlla olof Ndiaye dafa am wax joo xam ne ndeysaan dama ko daan fàttali ko ay maanaam wëy la woon waaye suñu maam yi dañoo dem ba ci bi defoon ko ay jàng ba naan néegu ñax yi dem nañ néegu taax yi ñëw na ñu sax léegi dañuy rey ay ginaar xam nga di réere yaakaar naa dëkk bi nag ku fi ñëw yaakaar naa nag doo fi ay ginaar ay nag nga rey ak ay xar kon yaakaar naa loolu xéewal la waaye ba léegi suñu papa ji taxaw papa lu la gën a yéem tey jamono ji li gën a yéem mooy moom mii taxaw di wax nii way juróom bu góor sëriñu daar la woon amul lu mun ta faj ne woon naa ne fii dëkku cosaan la boo xam ne tawat goo am soxla boo am boo dugg ci dëkk bi dina faj day faju ndax kooku ku fi mbuboon na téye ko ci léngee ci loxob baayam la ndax papam man mii di wax yow ci daara baayam laa njëkk a dugg xam nga wax naa la ko ba ñuy dugg sànq ci njëlbeen wax ji nee naa la fajukaay aajo la mhm. ndax dëkk bi tool na jamono boo xam ne mhm. dafa demoon ba raaf mhm. dafa demoon ba ñëpp ñii daw di dem dëkk ci beneen dëkk dëkk yooyu nag seen cosaan fi la jógee wallahi wal azim nga mel noo war a mel nga dugg fi ci dëkk bi looy ñaan ñu borom nangu barke Cheikhul Khadim macha ah, kon nag kilifa gi comme que yoon nag lengee yaa yor télévision ba ngoog dóora bal bi mu tàkk kon maa ngi leen di yàlla yéen a xam fi ngeen bëgg yàlla ni fa yàlla yóbbu ci barakat alxamal karim jërë ngeen jërë ngeen jëf kontaan naa trop man ak yéen tey man ak yéen ba suba dëkk bi yaakaar naa ni képp ku fi mës dugg am nga loo fi génne waale waaye man it balaa maa génn dinaa am tam lu ma fi génne waale loolu nag dama koy boycotté dama koy caabi man ak yéen bisub tey jii seetaan leen ko en direct kenn du Salam TV kenn du Salam Vision Eh, fii la ñuy tëralee gan yi gars fi ñuy soloo fii la ñuy ñëw ñi sànni jant Jóob ak ñooñu fii la ñuy di tëralee sol leen ba ñu ne kecc nga xam ne bu doon suñu mën a yëngatoo waa soxna si salaamaaleykum Ibadi contraté la ana waa kër ga waa kaay ñu laaj la tuuti rek ci mbana yi kaay laaj la tuuti rek loo xam ne du sore parce que dégg naa ne yaay yaayu gars yi ngoog léegi nag mbana bi yéen ñaata mbana ngeen di sóor par bés ñun chaque jour si si gàmmu ci gàmmu gi waaw tey daal mu ñëw wàññi suñu loxo wante chaque chaque eh, at bi jot daal mhm. ju ñeenti mën a wala juróomi mën mhm. a am bokk na si reer mhm. cere vermicelle seen dara manqué lu macha allah ay nag yu bëree bëri ay nag yu bëree bëri bëri waaw caméra bi soxna si waaw voilà mu ngoog waaw yow noo tudd man maa ngi tudd Fama Sidibé Fama Sidibé dëkk Dakar Sidibé na Sankara Diakité na e e ɓe mana kame ha iɓe doni me yani télé salam tv de o ah, nana ko bo dakar bi ke nayeno mhm. ko wona gamunita en direct pour ɓa yele ka yele télévision na an ba ala deli san o san o kɛ na n'u sela mun na ɲina u ka se o ɲɔgɔn sila la san wɛrɛ kɔni bi i jija ah, ah. k'i fo mhm. k'i tatagal mhm. e k'a ɲininka yan nɔ yan san o san chaque année danañi fu jɔkulu man fo kimanda mbaa fukki ban ak juróom rey ay nag kon alhamdulilah yal nañu ko gaaw a teewee ñu woo la solal ma yére jeex na waaw kontaan naa si yàlla yëf yëf yi yokk yokk yokk yokk yi wax jërëjëf ñëpp ci fekkee bañ a manqué jërëjëf macha allah merci beaucoup soxna si tegal sa baaram ñu dem ñëwaat jërëjëf eh, maa ngi ñëw ci jigéen yi mooy aawa yeeg ñaareel yi waa waañ bi salaamaaleykum wa rahmatullah soxna si noo tudd yow man Fatmata Touré laa tudd. Fatmata Touré. Touré man de Mori. yow lan nga représenté Soufiane ah ñun ñu ngi ci wàllu togg bi di jàppale toggkat bi. Mhm. Mhm. léegi yéen seen togg yi eh, lan ngeen di togg ne reer añ ou bien lan ngeen di togg ne exactement. waaw dañuy togg añ dañuy togg reer ndekki sax dañ koy togg. jërëjëf eh, amaanaam añ bi lu muy àndal ni ay tufi la ou bien ceebu yàpp la ou bien ceebu ginaar la am lan la. waaw ah, lépp a ngi fi ceebu yàpp am na ceebu ginaar am na. waaw ceebu jën it am na. jërëjëf mhm. jërëjëf soxna tegal sa baaram ñu ñëwaat yow tegal sa baaram soxna si xool ma yow bi njëkk mosoo nii rek sama soxna yaa ngi leen di ziar bu baax a baax noo tudd. awa awa nan. awa Ndiaye. Ndiaye Diatta man Ndiaye laa sant comme yow. Ah. awa yow fan nga jógee. man maa ngi jógee Soudiane Altou. Soudiane Altou. waaw kër kan. Ngor Diouf. ah kër Ngor Diouf. waaw jërëjëf awa loo fi wut soon tey ji si jàng ci jàng yi tey. man xanaa bëgg si rek ñëw di leen jàppale. jërëjëf ñëw jàppale jigéen ñi sa moromu jigéen ñi comme boo xewle ñoom it dañuy ñëw boo ñu xewlee. bu ma xewlee ñu ñëw. jërëjëf Diouf jërëjëf yaay nen ne. Ah. yaay nen ne ñu ngi lay ziar baax a baax. ça va na nga def. yaay nen ne noo tudd. Sira Ndu. Sira Ndu. eh bamanande wa. eh bamanande fii Fulade. ñe Fulade de. eh Fulade. bamanan ko fula ko fula ko ko. mi fula ka mɛ mi bamanan ka mɛ. ayiwa i bɛ di. e nana mun ɲini yan bi. ne n nana tobili de la. i nana tobili la. aw bɛ n jeli tobili la yan don o don. san o san. an ah, ma laami mana nan to tuma laami duuru to abo duuru segi mm. aywa e, e cee jamu o jamu diallo diallo diallo ne jakete jakete ne diallo in cee e mum filene jekki mo soor e dohodi mariétou tounkara mariétou tounkara e nana mo naambi a nana toɓeli la nana toɓeli kala on deme cee e ɓolo sujane ar fi ɓolero a mbola samba dia re kana furula sujane ngam mbawi sujane kaadi yatala furula samba dia jerejef kon sama sama sérigne dama doon wax sànq nee naa la kilifa yu bëri dëkk bi seen ndey bu fi jógul seen baay fi lañ jógee ndax dëkk bi dëkku cosaan la kii ma toogal ni yaayam fi la juddoo mu jóge fi dem sey Samba Dia benn dëkk bii neen Samba Dia ah, maanaam dëkk boobu moo ëpp Soudiane léegi mais Soudiane ko ëppoon à dans à l'époque da ci ci histoire kon donc moom yaayam fii la soxeeku dem sey Samba léegi yow eh, bi nga see Soudiane nag léegi loo gise Soudiane yow. ah Soudiane ni ma ko gisee moom macha allah ci kaw ci kanam rek ci lu baax. kon xam naa moom. amaanam seetaanam fii la ko yàlla bindee Sey Soudiane bii fii la ñuy toroxalee seetaane ci moom yow loo xam ci gàmm gi yow. ah gàmm gi moom macha allah gàmm gi moom ni ma ko gisee nii moom macha allah alhamdulilah am nañ ci yaakaar bu baax a baax a baax. jërëjëf soxna si kon yal nañu ko fekkee déwén. Eh, le grand technicien. Ibedi Edoro eh, Kortanati la. Eh. Sobaxo Ibedi Edoro. Ibu mën na naat li nga defar lu lu mu tudd nii. Dakar la. Dakar ak lan. moom lay ñoo defar ni ñoo débb ko commencé defar ay kaane ay. ci daal ay ñama-ñama yi rek. jërëjëf maanaam saf safal yaa ko yore dinaa leen xamal yar nag jàng yi may def sama kër kii mooy géré waañ bi kii moom lépp ma saf dafa mooy tudd saf loxo mati saf loxo. foo wax ko foo jógee fii am Soudiane fii nga cosaanoo. Soudiane fii laa cosaanoo moom. fii laa jógee ñëw seeyaat fii si biir dëkk bi. jërëjëf mm-hmm, fii laa jërëjëf Mati mm-hmm. kontaan nañ ci yow yàlla nañu ca waxal yooyee kan. <laughs> man maay mari Jara. sama sama Jara waaw. <laughs> sama yaay moo jóge si dëkk bi kii nii sama nijaay la. waaw. léegi gàmm gi ñu ngi si septième édition macha allah suñu maam yi ñoo ko doon def mu amoon rupture ñun jeunes yi bi ñu ñëwee ñu yëkkatiwaat gàmm gi mais moom chaque at ñoo ngi siy gis suñu bopp. ndax doomu dëkk bi yëpp koo xamante ne gëj ngaa ñëw si dëkk bi soo déggee gàmm gi dangay ngay ñun gàmmu gi retrouvaille lañ ko def. jërëjëf ndax ñëppay jóge fu ne ñëw. mais oto oto télévision bi daa panne yow yaa ko doon loolu magasin nga wala lan nga. oto bi ah dañoo nekk ci digg àll bi oto bi panne euh, caméraman bi xamul côté yi dara <laughs> ñun tamit ñu jël xeer yi rek di ti oto bi. <laughs> damaa ñëw doon départ <laughs> lu waral bisu màggal bi. Euh, bés bu màgg bi nag mooy ne comme ni ma ko waxee rek ci njëlbeen retrouvaille la si ñun. ñaanal waa dëkk bi këpp ku fi mus a làkku ndax dañuy wàccee kaamil suba si guddi gi nag seex bu jóob ñëw ñu toroxal seytaan mm. jërëjëf soxna si waaxu ne di ñëw nii takk euh, nji njël bi ni nañ wax moom mu ngi takk ab njël te xam naa ne kii moom euh, kenn dootu koy présenté def naa ne Seex ab Seex Abdul Xaadir la takk moom mu ngi nii photo Seex Abdul Xaadir Jeylaani moom la yore kii moo doon wax yàlla moytuma yàlla na ko moytuma kon donc dëkk bi nee naa li ma la waxoon moo fi am dëkk bii dëkku cosaan la dëkku la boo xam ne soxla bu waaye am boo fa dugg si boo ko ñaanee mu faju kon soxna si yaay kan. man may faata Coulibaly. sama cousine la papaam ak sama yaay ñoo bokk nekk man may man may soxna Fatou nekk yaayu xale yi. nekk taalibe Seex Seex na eh, eh, Xaadir bu Jeelaani nekk Suujaan man may nekk yaayu xale yi bés bi nag moom kontaan naa si lool di koy rafetlu lool. ndax ñun dëkk bi amuñu leneen lu dul borom Ndiassane borom Ndiassane moo sànc dëkk bi ñoo suñu jël suñu maam yi ñëw dëkk loo leen fii ñun amuñu keneen moom la ñu yaakaar gi nag yàlla ak yonent bi borom Ndiassane la ñu so mooy la ñu yaakaar mooy suñu adduna mooy suñu alaaxira moom la ñu dénk suñu bopp dénk koy suñu njaboot kon dëkk bi dëkk borom Ndiassane la kon tey kontaan nañu lool ci bésu tey bi nag bés bi. kenn moomu ko borom Ndiassane ko moom mhm. ndax boo gisee dëkk bi mhm. ñun at bu ñu premier def suñu gàmm mhm. bu ñu defee suñu gàmm ñu wax ko sëriñ Amet Amet Khalifa moom moo yor Soudiane moo yore dayra Soudiane man maa bi ma waxee xale man lañu yónnee ci Amet Khalifa mais bu ñu ñëwee si wàcc dëkk bi kere bu ñu wàccee fukki cadre ñoo fi wàcc ak ñaar balaa bër set boobu dëkk bi tollul nii boobu dëkk bi melul nii koñ bu ne doomi kunta yi taxaw na fa mm-hmm. ñu ñaan lu ñuy ñaan ci dëkk bi bu mm-hmm. ak ren ma nekk juróom-benneelu at mm-hmm. waaye dëkk bi ci kanam rek gis ñu tànk ginnaaw tànk kanam rek la ñu gis ci dëkk bi kon sant nañ ci yàlla bu baax a baax télévision yi ah, moom macha allah tey dañu kontaan suñu xol moo sedd ndax lii mosuñu koo yaakaar mosuñu koo xalaat ne gàmmu Soudiane dina am télévision jógee feneen ñëw taxaw si pencu Soudiane ngir borom borom borom bés bi loolu yaakaaruñu ko woon kon kon ki li moom keneen defu ko yàlla ko def ak ci barke borom Ndiassane mm. mi ñuy yaakaar moo indi tey bésu tey bi ñu koy rafetlu lu baax damaa kontaan sama xol dafa sedd man ku ma gis xam ne taalibe laa ci taalibe laa juddoo ki laa yaro te fas naa yéene ci lay dee aw ma keneen ginnaaw yàlla ak yonante bi borom Ndiassane laa yaakaar te lépp lu ma am mooma lépp lu ma mën mooma kon tey sama xol dafa sedd ci bes bi soxna si tegal sa baaram ñu dem ñu dem ñëwaat Ibulaay jël jël ma yow Ibulaay kii kii moo yore programme bi yëpp na kii moo ko yore maanaam bu ñuy jógee Dakar Suujaan Jamñaajo Njoos moon kii moo yore programme bi ba Suujaan mu ngi ni kii mooy Ibulaay président <laughs> non man du ma <laughs> waaw ziar naa leen lu bari bëri bëri euh, man nag doomu Ndakaaru la man sama pap moo juddoo fii euh, moo tax ñun ñu ñëw di waliyaan si suñu dëkk pour xam suñu richesse su maam euh, non ah. njaboon léegi donc organisation bi si côté cuisine nag lañ ma si boole côté cuisine daal lañ ma si boole affaire togg yeeg yooyu te moom la ñuy ñaan yàlla di ko kon bañ heure bi fi yàlla di jëlee quoi waaw fii yàlla bàyyi ñu fii ñuy voyagé moom la ñuy ñaan yàlla. tey jii ñu gis organisation bi gis na lool parce que yaakaar naa ni programme bi ci gën mooy organiser booy organiser ku ci nekk ak na koy gisee. waaw léeg-léeg da ànd ak nit ñi léeg gis lu rafet. waaw ñee tam yokk la nga gisee ñee ñee gis gisee wuñu foofu. yow tey jii yéen tolluwaay bi bi ngeen liggéey ba mu yegg si fii. waaw amoo ci ay quelques réeróo yi ngeen ci am. ak non réeróo du moom du si wante lépp affaire compréhension la ñuy demee. waaw ndax boo amul compréhension doo mën a ànd ak nit ñi doo mën a gérer ak nit ñi ndax nit ku nekk boo xoolee si sa bopp rek doo sonn boo defee li ngay yéene sa bopp moom doo sonn ni nga jàppee sa bopp daal ngay jàppee wante nit ku nekk matul yow da ngay xool sa bëgg-bëgg nit ñi xool seen bëgg waaye yow l'essentiel mooy na nga def li nga war a def rek waaw ba nit ñi am satisfaction macha allah macha allah macha allah incha allah bu soobee borom bi ok. jërëjëf Ibulaay jërëjëf président jërëjëf te kon nañu doxantu nañu nañu nañu nañu doxantu ba kër daayira bi fu ñu nekk ñu dem seet leen eh, tatagal ne moo moo ma xamal la cosaanu Suujaan nag gis nga guy bi nga seen nii guy bu rëy bi ngay seen nii fii amaanaam ci diggu Suujaan la nekkoon moo nekkoon le milieu du village fi fii nii ndax ñun bu ñu mosoon def suñuy tooxi doona jamonoy xale fii la ñuy daw ñëw dugg ci pax mi bu ñu duggee ci ak lu ñu mën a def bu ñu génnee bu ñu demee suñu wajur nañu jéggal ndax gis nga mango yi ndax jooy jamono da ngay dox naaj bi doo ko gis mu ngaa dox presque deux cent mètres trois cent mètres doo gis naaj ndax mango yi dafa naatoon mu branché wu waaye nag adduna mooy dem la fayoon mooy takkaat ndax Soudiane dafa demoon ba raaf waaye léegi mu ngi jógaat macha allah ndax euh, xale yaa ngi jàngi école xam nañu donc euh, fii mooy jumaa ji mooy jël fii lañ jóge sànq voilà donc dañuy doxantu ba daayira bi fu ñuy wàcc fële kii nag sama kër cousine la mooy ndaw si toog na le sama cousine la waaye waaye yow mii daal waaw mooy mborom boobu mu weex mi toog sama cousine la salaamaaleykum salaamaaleykum anit lee fa anit soxmado aw nit clé aérodrome kii nag mooy madame le maire kii mooy madame le maire c'est le premier magistrature de Soudiane Bambara donc moom moo fi nekk tey waaye nag jëkkëram dafa génn àdduna ñu ñaanal ko ci gàmmu gi eh, ñu jël ci moom ñaari kàddu rek mu sànni ci ñaari baat salaamaaleykum wa rahmatullah laala ñu ngi leen nuyu am tey micro bi nga wax ñu ñu ñaanal si jëkkër yal na ko suñu borom xaare aljanna eh, fu mu jëm yal na doon noflaayam fa mu jógee yàlla na ko yàlla yokk xéewali si ñun ci barke Cheikhul Khadim jërëjëf bisimilah. kon asalaamaaleykum gan yi maa ngi nuyu ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen sant di leen ñaanal yàlla ah wax dëgg ni ko Sidi waxee la man tey sax wax waruma parce que kuy muuru moom wax dëgg yàlla am na loo xamante ne waru la wante nag lu munta ñàkk tamit sër moom ñambaas yàqu ko kon na may sant rek di gërëm di ñaanal waa Soujaan lii seen mébét yàlla na ko yàlla eggale gàmm gi nga xamante ne mooy gàmm Seydina Mohamed ñu yaakaar ci kunti yun yi ah wax dëgg kontaan nañu bu baax a baax sant yàlla bu baax moom Seydi am na taxawaay taxawaayam rafet na rafet na bu baax a baax tey jii ñu gis ñu tey jii bis bi tey jii sell na sell tey jii ba télévision yi tey bett nañ leen tey jii tey ñu am si ak tey suñu nga xam ne tey jóge ko yàlla yërëm amiin nekk bokk jógee tey jii yéen bu bis bi ba toll fii ak mbégte gi tey jii lan ngeen xalaat ci yoonu diine ah ci yoonu gën a sant yàlla rek ñu gën a sant yàlla parce que ñi taxaw bés bi ba bés bi yegg si fii doomu suujaan lañu kon dañuy ñaan yàlla doomu suujaan fépp foo nekk ci àdduna yal na la yàlla teg loxo barkeel li ñuy def gàmm gi damay wax naan sabab bi moom mi taxaw la gàmm gi buñ ko doon def ay ñetti nit ñaar nit la woon gàmm gi day dem na tey ba wax dëgg yàlla foo toll ci àdduna dañuy wax gàmmu suujaan bala kon loolu sant yàlla la fierté la ci ñun yokkute la tamit dañuy ñaan yàlla yokkute boobu yàlla gën koo fulandil ci barke Seydina Mohamed kontaan naa daal kontaan naa jërëjëf soxna si tegal sa baaram ñu dem ñëwaat kañ waxal sànq te mu takk euh, njël Cheikh Abdou Khadir Jeylaane bi moo kii ñoo bokk ndey ak bàyyi c'est la famille li ma wax ni c'est la famille ndax ñoom ñaari ñoom ñoom ak sama yaay ke jur ak jur sama yaay ñoo bokk ndey ak bàyyi samay cousine lañu donc c'est la famille kon nañu continuer euh, am beneen borom xam-xam bu ñu dem seeti kena aw mafle aw la karam bi quinze cent au kena aw fo ka aw wala ñu man don ay jàllo e eh, ñafuyengi faade folla ke imam suyaniyane e eh, donc aide o remplacé ambola délégué de quartier bara noye eh, wiye souleymane traoré kena e e e amini diallo barano donc ibi baro kene ceefe ɗoni bisimilla iɓe seba bamana kano heɗe ɓe ko olofo kano ba fay ah, bamana ka olofo ka eɗeba eɗeba ɗo awnice bara ahan ala kawsara sujan tv ɗo non tv ala ka kesi amin ala k'a kɛ kɛnɛya la amin tuwari kala micro ta micro ta amin tuwari kala kira hɔrɔma la amin amin amin a aw denmisɛnninw n ye mun y'a la n kɔntan na fo ka taa kɔntan n'u dan kabiri aw ye nin daminɛ ni bi tɛ mhm. alhamdulila an ka dugu a bɛ awan sira de mhm. n ye ala deli n bɛ dugawu kɛla ye ala ka dɔ fara hajɛgɛw kan k'a kɛ si ye k'a kɛ kɛnɛya ye k'a kɛ kunkɔrɔta ye kira hɔrɔma n de kɔni wahade yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ bi mhm. n ko n ye fɛn sɔrɔ munu yen ko yan mun hon soro kosɛbɛ eh, ndedu nge kara me yɔrɔ jinja mm-hmm. eh, nka koko koko a ah, n'a dan yɔrɔ de mɔgɔ mɔgɔ n'i hadigɛ kosɛbɛ ne kɔni bɛ ala fo ba tan kɔntan na kosɛbɛ kɔntan na fo ka taa ala k'a k'aw ye sini amin kala n wuye fɔtɔ ma n b'a b'a mɛn koɲuman n b'a fo k'a fo kosɛbɛ hadigɛ n'a mɛna dɔn yɔrɔ d'a na k'a ye kɔnpilɛ dina bi ko n n'o jangi yɔrɔ o de y'a kɛ devoir ye o de parce que mamu ni mamu u tun bɛ kɛ donc i bɛ kumakan fila fɔ wɔlɔfɔkan nɔ ka ninnu mm-hmm. fana na remercier mhm. Mhm. comme bola fo dakar de mhm. kena ke télévision ta kumana gamuni reporter ka pour tane directement là donc ibi u fo olfo kano comme te bamanan kame anga anga ñoxon de minoy bismillah assalamu alaykum eh, eh, suñu am sa ka fo olfo kano assalamu alaykum mbokk ñëw eh, pour remercier suñu gàmmu bi kontaan naa ci trop fu kontaan yem kontaan naa ci man daal maa ngi ñaanal xale yi. yal nañu yal nañu gudd fan. waaw te ñu nekk jàng yoo xam ne tey dëkk bi yëpp tey ñoom ñoo a jàpp bis nekk bis bu am te bu bi tey te bu ngeen demee ba seen bopp xoolaat tey lii mm. dëkk bi mel. bi mm. nga xam ne jàng bi. Mm. maanaam. lu dul dëgg bi yàgg te yaakaar naa ne. waaw doon dëgg rek sax. wallaahi kon bi ngeen am tey jii lan waaw kontaan nañ trop kontaan nañu trop ñu ngi ñu ñaan dëkk bi daal yàlla na yokk. yal na yokk yal na xale yi gudd fan am wërsëg man daal loolu laal ngay ñu ñëw aari kalla kon nañu nañu jël ki ci wet gi kii amaanam eh, mu ngi jóge dëkk bi nan Sonsoro Bougou Sonsoro Bougou Sonsoro Bougou ki wéy juróom bu jigéen fii la soqee ko kon li ma la wax mu ngi ñëw kon li ma la doon wax sànq nee na la dëkk ndaan dangaan yi bëri ngi fii seen i yaay bu fi jogul seen baay fi lañ jóge ndax dëkk cosaan la kon salaamaaleykum kii la ne Khalifa Cissé ñu eh, may la nga sànni si ñaari kaddu rek bisimilah. non non ku non Kuba Kanfla Kuba Kanfla foo. Kuba Kanfla moom nag Serigne la day nëbatu Serigne la moom ma ne ko moom Serigne la dañ aywa kon na fa teg baara ñu ma jox ko soxna si eh, kii mooy wajuru bu jigéen ndax kii moo nekkoon sama xaritu yaay benn bakkanam kii baayam ñooy cosaanu dëkk bi moom meññ xale bu góor bi toog sama mag la. kii sama ma sama yaay la ndax euh, ñii sen ñaan daal lu tàgg ñii bu ñu nee yàlla na yàlla def rek boo ci amee tout sens rek yàlla eggali ko salaamaaleykum wa rahmatulah. yaay na de ba fo olof fo. ñaw fo. kaana kaw tando. nce kem duwawo kaw ye. nce aw ye tiɲɛ fɔ. Mhm. taala. Mhm. kaw dɔgɔma bɛɛ dɔgɔmani to ni ye. walahi. aw taala kambe dohomante ɓeɓe duwaw kawle aw ɓe sey mum kaniya ala ke heera kawle ke duwaw ki hawle kaw kisi kaw kisi baga ke allahu taala aɓe tande yey baba an ɓe ñowan sansedronde keta mɓe duwaw lawye mɓe duwaw lawye yayboyi baba ala ka nema si aw faw na o baw na ko bema ila ba horomaro jërëjëf i ceeya boy Euh, merci beaucoup en plus maire ini ce ini ce ini ce alama ausone kenyala alaka to a ñefe eh, alaka horoma dawka kila barkaro cheikh abou barkaro an tie jallo koni ambe se o bafo ko yorma mari kunda ñami ko dere bende ambe tulu fo ko ma flani o baro doni ke ambe tambe na aywa ahaka c'est ma sœur ñi dakar lañ nek mais fi lañ juddo fi lañu juddo dëkk bi ndax seen way jur bu góor fii la dëkkoon ak seen wayjur bu jigéen donc euh, wax dëgg yàlla euh, moom sama sœur la macha allah. Ndeye Cissé dañuy waral sa déplacement jóge Dakar ba Soudianté lan moo ko waral salaamaaleykum wa rahmatulah. waaw alhamdulilah rabbil alamin ñoo ngi sant yàlla bu wér. sant Cheikh Bou Kounta moom mooy sunu wasila ñoo ngi ñaan yàlla fekkee déwén yu bëri ci barke Muhammad Rasul Soudiane yàlla na jëm kanam ku ko commencé yàlla na jëm kanam yàlla na Doudou Ba waat mënuma wax. amiin ah, jërëjëf jërëjëf Ndeye Cissé jërëjëf jërëjëf. jërëjëf soxna si tàkkoon njël gi ba léegi kii mooy seen taw baay góor gi salaamaaleykum dañ koy fekk tey ba ci néegam tey maa ko fu mu dugg maa koy loqate bi génn ko tey waaw tey moom eh, dama koy fekk bi ay cumikaayam ndax lu amul seede wóorut kii mooy góor gi Fall amaanam Salam TV ñoo la seet si woon tey ci jàng suujaan yi dama bëgg ni lii mu nga jël ça c'est une publicité pour moi. ku sa aju fajuwul boo ñëwee fi dina faju comprendre nga eh, kii mooy góor gi Fall góor gi Fall nii ñu ko naan kulu vie Kulubali boo déggee ñu naan Paa Kulubali rek kii la Paa Kulubali ñaanam du tag Paa Kulubali fu la ne aywa bu yeboo nga jóg kon salaamaaleykum eh, góor gi Paa Kulubali yoo leen seet si woon tey nga wax ci ñaari baat ci gàmmu gi su yan Eh, def nga lu baax si gàmmu bi moom yàlla nañ ko fekkee déwén fekke nañ ko daaw fekke ko ren yàlla nañ ko fekkee déwén jërë ngeen jëf kontaan nañu si de la xam naa ne classé nga ma dégg mhm. foofu rek lay yem parce que ma ci sori mhm. voilà voilà jërëjëf jërëjëf xam nga dugg dinaa ko loqati génn eh, mu ngi noonu kii boo gisee ma la jàng bi xam nga ba ñuy dugg si dëkk bi nee naa la ginnaaw sama wujur bu góor maa fi njëkk a organisé jàng ci loxoom laa ko tegoon yaa ngi dégg li wax baa de ci loxoom mbii laa ko tegoon waaw voilà mu ngi nii voilà mu ngoog waaw. Eh, ñu organisé gabu ci dëkk bi man ko Sidi est loolu dina yomb man ma dina yomb ne ma xam nga ni muy yombee dama dul sarte kenn dara dinaa def añ bi def reer gi jëlee nag jox la fay jàngkat yi ma ko ne mu yomb. noonu la ko defee fii laa rey nag bi ci biir kër gi mais nag ba ñu togg fii de fii lañ ko takk rey ko fii ma jëlee yàpp bàgg lifin bi ñu leen toggee faye ñu organiser gàmmu ba gàmmu ba pare ñu def rey réunion léegi xoo goos yi xool ne lii daal kenn yoree ko ci dëkk bi comme sumb na ko nii nañ ci dugg képp ku ci dugg tey di Diarra mii moo tax moo ñëw it Sidi daf ñuy jikk jàkkaam bi fi ñëwoon moom moo ñëw jënd ñetti paquet sa ñeenti paquet sa nga ñëw xàdd ko ne jàkka bi dinañ fexe bu ñu amee gàmm bu ñu am alal ci gàmm bi ñu organiser fexe tabax juma ci même boobu lañ ne ba ci diggante bi ba gars yi ñoo may ñu juma ci kaw loolu xaalis bu ñu doon dajale mu ngi fi ñu di koy tabax ay margo ak ay bagages yu sew yi kon nag Sidi wax dëgg la wàcc nga waa la ak télévision bi. waaw te yaakaar naa dañ laa waaw dañ a ñu di toog. waaw yaakaar naa ne bu ñu nee gi. waaw yaakaar naa ne ku bëgg sa aajo faju. waaw yaakaar naa ne di nga ne faax dugg ci sa aajo mënta faju yaakaar naa sa tànk. déedéet sa wallaay wallaay du fi nekk yaakaar ñëw nii. waaw yaakaar a faju. waaw bu soobee la yonent bi. bu ko yalla sottale moom dina sotti. fii moom wax dëgg la boo indi fii soxla boo indi fii bu soobee yàlla yàlla da ko faj. waaw parce que lii man maa ngi fi toog ñeent fukki at ak ñaar ci lii rek laa toog. nag mais nag lu bon bi boo gën a gaw sama loxo de. déedéet lu bon day wax <laughs> mooy pa paaku lu bon du def lu bon. <laughs> rëy ci ñii ndax ku soxla ku jóg ñoo dem seen seen bàyyi seen bàyyi may toog ci biir man lay tiitaroo kon ma di ñii lay tiitaroo donc ñooy samay doom lañu samay xarit lañu ce sont mes partenaires ñooy xale yu góor yi dëkk bi aussi. donc salaamaaleykum ay eh, ñoo noo tudd yow. man Baba. baaba ayo Baba. Eh, waa seen eh, Salam télévision ñoo la seet si woon tey Soudiane. wax ma lan mooy sa tànk te ci gàmmu gi ak sa déplacement lan la ak nan nga sentir sa bopp daal tey. waaw ah, ginnaaw bu ñu jullee ci yonent bi ñu ngi sant suñuy waajur. waaw gàmmu gi dañoo nekk doomu dëkk bi. Mhm. waaw te dëkk bi moom bu ñu amee xew ñun dañ ci luñ nekk dañ koy bàyyi. teewe ko loolu suñu tànk. Mm-hmm. juddoo fi yaroo fi nag mm-hmm. waaw suñu papa itam juddoo fi yaroo fi mm-hmm. ñu topp ci tànk yooyu lu tey ji kon Soudiane bu ayee waaw dañuy bàyyi lépp teew noonu la mais yow kan mooy si way jur yow man Abdou Mario ah gis nga kii baayam sama la amaanaam ah, seen maam yow sama nijaay nga la te ko woon bi tey moo na tax ma xam ko ndax Abdou Mario boobu muy wax na Soudiane dafa fonde ci ñeenti xeet ñeenti xeet bi mooy Jara Traoré Koulibaly Mariko eh, Diallo juróomi sant yi ñoo sanc Soudiane ndax nee naa la sànq ci njëlbeen wax ji man a dëkk dëkkaan naa ñi ngay gis ni ci ginnaaw ñi bari seen baay bu fi jógee seen yaay fi lañ jógee kon salaamaaleykum boo ñu ngi lay sant baax a baax di leen tatagal di ñaan yéen dañu fekkee déwén di bari bari bari ci barke Seydina Mohamed merci beaucoup merci alhamdulilah comme ni ma leen ko waxee rek nee naa leen ci entrée ba lañ jaar dugg ci biir nee naa la kenn du Salam TV kenn du Kiki TV nee naa la nag bu leeree rek xam ngeen fa mu jot a jaar yaakaar naa ne ñooñan la mooy borom réew mi bu ñëw borom mi nag xam ngeen tey ji ni fa demee tey ji kiñ toogal suñu yaay boole moom mi nga xam ne mooy aaw buuru këram kon nag am na loo xamante ne nag dootuñ ko sori te nee nañ nag am na xew ci ginnaaw waaye xew nag ci ginnaaw nag du waxal lam-laamee yaay ñu ngi lay ziar maa ngi leen di delloo ziar jàmm ji jàmm jaa ngi rek comme yaay aaw buuru këram yaakaar naa ne yow yaa njëkk dugg ci biir kër gi Mhm. waaw loolu moom am na am na ñu ma fekkoon sax suñuy samay mag. Mhm. waaw tontu ak question la n'est-ce dafa am loo xam ne da ko wax léegi ma dee ko da nga dafa am ñoo fekkoon. ñuy samay mag. ñu say mag waaw ñoo ma fi jiitu. Uh-huh. tey jii ñu gis ne tey jii suñu grand soo ba léegi moom moo yor antenne bi mhm. te mu nekk sa borom kër. tey jii maanaam mu nekk grand boo xamante ne grand bu jar jox exemple la ci mim réew. tey jii yéen ci tey jii ngeen organiser tey seen jàng yi. tey mbégte gi ngeen am te ci bis bi lan la. contentement bu bëri bu rëy di ñaan yàlla nag ñu ko fiy fekke ay atti ati at ñoom ñi koy organiser ñoom ñëpp yàlla bàyyi leen suñu kanam suñu góor a àjjana yooyu yàqu ñu dara si bis bi seen dëkk la de ñun ay sëyaan lañu dañ fee ñëw pour sey si fi waaye xoolal yaatal ñu macha allah waa dëkk bi baax yàq gàmm bu amee dañuy yàqamtee ñëw ndax macha allah niñ lay tertoo di leen ñaanal nag gudd fan ak wér xéewal gu baree baree bari bari waaw tey jii ñu gis ne tey man maa ngi dugg léegi-léegi ci waañ bi sama bët yi commencé ba ma naan jigéen ñi moom yaakaar naa ñëw lu ñu leen taral rek doyul coono yi ngeen di daj ci waañ bi saxaar si toggal ñu togg gu neex yàq ko ci boor ñu ñu taxaw lekk ko yaakaar naa ne képp koy góor yaakaar naa ne jigéen bu duggee ci biir waañ amoo dara loo ko war a wax lu dul jaajëf yàlla nga gudd fan yàlla na yàlla defal jàmm coono yi ngeen di daj ci waañ lan la waaw ah, lépp pour yéen la rek ndax yéen tamit yéen a ngi daj coono ndax dara mettiwul ngeen xëy di wuti di ñu jox te wuti boobu ngeen di jox ngeen di wuti di ñëw di ñu jox loolu rek coono la tamit kon loo leen sonn si war nañ ko mën a sonn si biir du noonu. tey jii ndakaaru ba fii sori na tey jii jàng yi moo ko waral tey yéen ñëpp ngeen jugewaat biir ndakaaru tey ji ñëw ba ci biir dëkk bi and ak waa dëkk bi feetoo li nga xamante ni tey moom mooy jàng yi tey ji toog yi nga xamante ni berne yi bari yi nga ne jot ngeen ko def tey ji ci biir jàng yi tey bu ngeen toogee tey ak kilifa yi yi fi nekk tey ji seen xol bi tey lu mu leen di jox contentement rek li ma la wax sànq si commencement ñun fii moom suñu fiyeef la ndax fi la ñu am ñun ndax fu sa jëkkër am foofu nga am du dëgg suñu borom kër yi fu ñu am rek foofu lañu am moo tax bu gàmmu amee dañuy bàyyi suñu lépp bàyyi suñu liggéey bàyyi suñu lépp ñëw teewal leen loolu la. am na ñuy commenté ci suuf nee na kii ku osé la kii ku waane la moom dafa nopp jëkkër ji ba dof lan la. ëpp na pour nopp bi rek. Ah. ëpp na man maa yaay aawa yaay déggoo ko. am na ñuy commenté ci suuf de nee na nañ bëgg a wutaraat. nañ ñëw. ndax man jaaxaanaay laay tëddee eh. ku ñëw ma bool la rogganti la barki sëriñ la ba tax nga pare bu ma paree day tey nee naa leen kaa foo dem fekk ko fa yaakaar naa ne fekk naa fi kaa li tax ma ne fekk naa fi kaa mooy maanaam comme que ci ay jàngale ñëw loolu noonu dañ koy dagg dañ koy dagg ba jàngee jeex bu jàngee weesoo nag leneen lu ngeen gisaat nag ñu doog a yëgale suñ débat kon léegi ñu bàyyi la waaw sant nag sama borom kër di sant ay rakkam di sant sama goro be di ko ñaanal yàlla fa mu jëm yàlla na ko gënal fa mu jóge macha allah heure bi daaw fekkoon na ko fi kon ren bu ko fi fekkul yàlla dogal loolu maa ngi koy ñaanal suuf seddu lool sax kawam ak ña ko fa fekk ak ñam fa fekk ak ñoom ñëpp ak mboolem jullit di kontante nag am contentement si jara Kounda am contentement si Soudiane Bala ñëpp je vous ba léegi yéen a ko gis ne woon naa leen depuis suba ba léegi yéen a ngi doon suivre di ñu seetaan. yaakaar naa nag ñu ngi ci càppaandaw gi bu ne càppaandaw gi nag mooy guddi gi waaw fii nag ñu taxoon nag yaakaar naa ni am na loo xamante ni kenn dootu ko naatable fii mooy kër sëñ bi bu ñu kër sëñ bi ki a bis bi ki nga xamante ni moo waral lépp waaye nag sama nijaay suuba ba léegi coono gee ko jàpp mu tënk woon dama bëgg nag mu jege si fii nii tuuti ma am loo xamante ni dama koy laaj nijaay jege sil kaay kaay coono goo am rek am nañ bu koy daw kaay yege sil yege sil depuis suba ba léegi yaa ngi làqatu coono gi ku xool sa kanam xam ne sonn nga tey fii ñu taxaw fii mooy fan. fii Marikounda fii la ñuy dalal sëriñ bi bon mooy cosaan daal moo sëriñ bi à chaque fois bu ñu ñëwee fii lay dal fii donc fii la ñuy wax Marikounda bu Soudiane te tey ñu gis ni a ah, depuis suba ba léegi daanaka ku xool sa kanam gi xam ne nelawoo nelawoo depuis dem ba léegi yoonee xat na. yaakaar naa ne instant yi nag dëkk bi ñëpp kontaan nañ parce que yaakaar naa ne sëñ bi yegsi na ba dalal nga ko tey ji yaa ngi fi tey ci biir këram te ji euh, depuis soo bu léegi waroon nañ fee mën a kii mais li tax boobu léegi nag ñëwuñu fi mooy dañ doon wër dëkk bi du xool histoire dëkk bi ni dëkk bi tëddee ak lan moo waraloon bisu gàmm gi loolu lépp nag leer na nag ci bopp askan bi yéen ñi nga ne yéen doon seetaan depuis si suba ba léegi tey ji ñu ngi waaj a dugg nii ci biir ci biir waañ bi pour gisanteeg yaay booy yi ñi nga xamante ni maanaam ñoom ñooy defar xéwali ngir bëgg itam guddi gi ñëpp jariñoo ko tey ji yow boo demee ba toll fii nii tey ji yow ba njëg ngay am tey ci bis bon fierté la si parce que bon je suis natif de Soudiane mhm. fier d'être Soudianois bon moo ma ko jaral mhm. lépp lu ma mun def si bés bi mhm. daf ma ko jaral parce que bon je suis fier de Soudiane moo tax bon bu ma toll si moment bi du ma si sago bés bi lu mu laaj rek dama ko siy def moo tax bon sànq yaa ngi koy wax sa interview coono bi coono bi de mbégte la si man coono bu mu mun di daj fii ak lu mu fi mun di daj vraiment bon Soudiane tax kon loolu bon amul lu mu si rëcc amul lu mu si regretté si c'était à refaire je le ferai waa vraiment bon loolu Soudiane moo ko laaj daal waaw. waa dëkk bi nee si suba bi léegi da nga doon làqatu. non du làqatu sax dama am ñeneen gan yi ñoo sama kër bon franchement bés bi dafa ala me parce que man personnellement dama am. bon ab mu xadam boo xamante naan daf ma ñëw seet si gàmm bi mu doon gan ju maximum ñu koy wooye am Serigne Thierno Amdi Wane jóge fii ba Italie ñëw Dakar franchement ñëw si bés bi bon kooku laqatu bi peut-être d'une côté loolu moo ko waral mais fii aw ma sens interdit. maanaam daal mbégte gi daal wane na ko daal. jeex na yéen ko dégg mais nag mbégte la am ñun tamit dañu am mbégte sama réalisateur. yaakaar naa ne képp kuy jinne caméraman xam nga ko te yaakaar naa ne kenn dootu ko laam-laami ci biir dëkk bi dootuma ci tudd tur bi dama koy alhamdulilah comme ni lañ waxee nee naa leen am na loo xam ne kenn dootu ko laam-laamee te bu nee laam a ko gën a xam ndax depuis suba ba léegi mooy li leen ak léegi yaakaar naa ne fi taxaw léegi gis ngeen ko mooy ci buntu kër gi nga xamante ni mooy daluwaayu sëñ bi présenté wu nañ dugg nañ ci biir ñi ne ku xool seen oto si nag xam ne nag wax dëgg fa yàlla moom waañ dafa am nu muy baaxoo bu nee na muy baaxoo mooy yeneen ñu gën a xam gis nga seen i otes yi te ñii nag man li ma gën a jaaxal mooy sama caméraman man dafa mel na ñii ay jinne waañ lañ am na loo xam ne nag ah jinne waañ lañ sama caméraman la ko wax nag man nag waxuma ko ndax damay bañ ko ba yóbbu faar soxna ci loone maa yaa ngi jàmm sant bu baax naka ngeen préparé seen waay avec mbégte rek ak engagement rek lépp sëñ bi lépp sëñ bi loolu rek ngeen gis loolu kese la moo tax yéen waa dëkk bi ñëpp ngeen man koo nekk benn jël bis bu toll nii jël seen loxo téye ko ne yaay booy dañuy noppale comme que ñun ay jeunes lañ ñu ñooy taxaw wane maire yi nag ñu ñoo leen gën ne xale bis nag xale moo koy téye lan moo waral tey ji euh, initiative boobu ngeen jël. initiative boobu lan moo tax ñu jël ko tey dama koy bàyyee ak xaddi Diarra moom dina la si wax lu bëri bëri lu ma si mën a sooy moo tax. loolu quoi. waaw. sama sama caméraman ma na da ngaa joxe quoi. <laughs> non moom day tooñ. moom moom tooñ lii lépp nag si ba si sëñ ba rek. kese nag. bëgg ko rek. topp ndigalam topp si wéyam lépp lu ñu sant loolu la ñuy def lu ñu bàyyi loolu la ñuy bàyyi voilà. tey tey ñu gis ni ah lu toll ni tey bis bu toll nii ngeen gis euh, télévision bu de bu départ depuis démb ba tey yegg si suba ba léegi mu ànd ak yéen bokk ak événement bi di ko couvrir taxawaay bi nga xam ne télévision bi jël na ko def ko ngir seen bis bi lan ngeen di delloo euh, njukkal ci biir télévision bi. vraiment dañ koy delloo njukkal di ko remercier franchement lii lu rëy la si ñun te nekk na loo xam ne tamit duñ ko mës a fàtte parce que tey jii nii gëm naa ne lii nii. dina dina dina dina dina àgg fa suñu njort foogewutoon dina àgg fa sore sore sore sore vraiment ñun kontaan nañ si ñu ngi koy remercier bu bëree bëri bëri bëri bëri voilà. alhamdulilah yéen a ko gis nee naa leen man maay la jinne télévision li ngay naan la jinne la kalamaan loolu du waxoon nag man maay la jinne micro am na loo xam ne nag dootuma ci détail balaa maa am leneen lu may def dafa am ci leneen lu may xuus soxna si ci loo nekk. waaw maa ngi ci jàmm alhamdulilah. yaa ngi am jàmm baax alhamdulilah jege si nii nii comme que man maa la sut moom xam naa dinaa la neex a tooñ quoi. <laughs> naka ngeen waajalee tey ji seen bis bi. ah bi waajee ko ak doole rek. ak contentement ak sawarte. ndax euh, nekk ay doomu Suujaan. te amuñu fenn fudul Suujaan. di ko tiitaroo di ko ndamoo kontaan ci lool nag yàkkamti woon bés bi ñëw ndax bés bi buy ñëw ñun dañuy sawar macha allah kontaan nañ. da nga wax wax ju garaaw nga ne yàkkamti bés bi ndax bés bi buy ñëw da ngeen macha allah dañuy sawar lool. boo ñu xoolee sax nga xam ne cawarte yaa ngi ci dëkk bi macha allah. tey ñu gis ne tey jii ku xool seen xar kanam yi xam ne xar kanam mu mbégte la. tey ji sëñ bi ñëw na ba yegg si dalal nañ ko am na fu ñu ko yóbbu ngir mu dalu tuuti ndax yaakaar naa ne bis moom lu war a démarrer guddi gi jëm ba fajar yaakaar naa ne nekkul loo xamante ni lu yomb la tey ji ngeen waajal ko depuis tey ak suba ndax xam naa ni mbir moom tey la ak suba léegi yow li di li des si diggante guddi gi ak suba gan yi nga xamante ni bëgg nañu yegg te yegg seeguñu est-ce que pare ngeen ñoom bu ñëwee ngir ngeen dalal leen ci biir bis bi. ah macha allah waa Suñaan jaay nañ seen lal yi seen kër yi ñun dëkkuñu fi gan yaa fi dëkk macha allah nañ ñëw ñu ngi leen di xaar ak bras ouvert. lii de ko doon déggee. ah mooy li am Soudiane te yàkkamte leen lool nag diwoo woo ñëpp macha allah ñu ñëw. gaa yi gaa yi nee waa Soudiane lan moo tax ñu pare. Euh, déggu ma. gaa yi nee na lan moo tax waa Soudiane pare. waa Soudiane ah macha allah ngoon rek fas yéene jàkkaarloog sëriñ bi ndax ñun wax dëgg fa yàlla amuñu kenn ku dul kunti yun ñoom la ñu am ñoom la ñu yaakaar te bés bi ñoom lañ ko jagleel. ñu ñëw Soudiane fas yéene jàkkaarloog waa Soudiane ñi bëgg rek kontaan rek continuer macha allah. te jii euh, sëñ bi tey jii ban message nga koy jox tey ngir mu sotti xéwal ci biir waa sëñ bi moom macha allah dañ cee kontaan ba pare ndax yàlla dafa def euh, bi sëñ bi di ñëw am na lu bari loo xam te ne mbébétoon nañ ko mais comme lu ñuy wax rek dañ ko doon ne dañoo euh, sos daayira pour taxaw askanu suujaan ndax dañoo nekk ay xale nekk Dakar ñi nekk biir Soudiane. xam ne suñu dëkk manqué na lu bëri tooguñu croiser les bras di xaar état dañ koy juutu état mooy créer suñu association xool nu ñuy dimbalee Soudiane def suñu gàmm lu ñu am rek ñu xool lu ñu def mais sëñ bi nee nañu incha allah loo leen bébét rek lu ne seen xol rek na ngeen xam ne avant gàmmu di ñëw loolu dina am te boob ba tey bu ñu commencé gàmmu bi ba tey ñun lu ñu mbébét rek lu ne suñu xol rek Soudiane am na ko. am na lu ma gis am na lu ma doy. am na lu ma gis te am na lu ma dégg ndax yaakaar naa ne ay jigéen lañ bu leen neexoon tey jii ne dañuy organiser seen xawaare wala ñu organiser seen leneen yaakaar naa nag ci yoonu diine lañ nekk ndax yaakaar naa dëkk bi képp ku fi nekk jël sa na jëmale ko ci diine yaakaar naa ne loo soobu gëm naa ne bu suñu borom àndee rek yaakaar naa ne loo ne fàng danaan fàng te gëm naa ni kenn du la sóori ba di la daan kon nag am na loo xamante ni du ma ci sori ndax mbégte gi la yaakaar naa nag dama leen di woon tuuti image ngeen xool ko nag ci biir waañ bi li ci des nag guddi la man ak yéen ba fajar da ngeen di jaay mën a seetaan rek di jaay sob te di ngeen seetaan ba fajar ndax yaakaar naa lu ma leen wan dinaa leen wan leneen lu ci des ok merci beaucoup kontaan naa alhamdulilah alhamdulilah ba léegi nu leen ko doon waxee rek ki tooga ni kat kilifa la ci biir kilifa yi yaakaar naa nag dama koy bàyyi mu présenté wu nuyoo waaye soo waxee tuuti ci olof nag yaakaar naa lii di làkkam nag dina am loo xamante ni nag dina ko tete ak waa biir dëkkam papa ñu ngi lay siyaar waaye yaa ngi am jàmm moom wala a nag damay damay yéem rek. waaw léegi léegi dèjà comme que léegi déggoo olof maanaam léegi euh, ci ci question bu gàtt rek eh. tey bis bi mm-hmm. li ko waral mm-hmm. moom lañ bëggoon nga làkk ko ci li nga xamante ni tey moo ko dégg muy. Mm-hmm. ok an kɔni an ka an b'a ala fo k'a tanto sɛnɛ kana lamɔgɔ ɲuman ala k'a dan bɛɛ lajɛlen na n silamɛ cɛman na musoman an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'u tanto an b'u waleɲuman dɔn ɛɛ 아재산이에요. 아무 때라시도 남의 근자산이에요. 아우, 아무 파우. 우베 그런 근자산이래. 보까 좀 봐서 고비. 아마 문나나 우리 두블란 재산데. 아무 파우 올란 재산데. 왜 그런 근자산데. 보까 나 이바고 좀 봐서 고비. 고비. 마마 아무 파우 비앙. 안 시타 포시 좀 남의 근자산이야. 근자산데 안그 프렌베이. 아우. 몇 배라 지내고, 몇 배라 지내고. seeɗa kanella wako ñuma ala ka dana an ceerno baraji mhm. aha ma daye alhamdulilah yéen a ko dégg yaakaar naa nag li mu wax nekkul loo xam ne man lu ma dégg la mais yaakaar naa ne waa dëkk bi bis bu ñu ko nañ li nga xamante ni kilifa gi wax na ko tey ji bi ngeen am tey ji ci biir bis bi ba tey ji sëriñ bi ñow tey ji moom laa bëgg tey nga laaj ko tey ji bambara tey ba waa dëkk bi yëpp xam ne carrément yéen tey kontaan ngeen ah am kon kontaan na léegi nan ka boole roro am si nan ka kontaan na amu fo ante mo don ngam ka kuntaye Koutaabon laa am wari dɔn an wololɔ dɔn an mɔnɔ dɔn kɔni n bɛ Kouta baara bi k'u bɛna se Ala kan an baara bi an b'a la fɔ an b'a Ala tun don awɔ o kɔni o hadiya la an tɛ se ka foyi n'a ma Ala ko am an bɛ Ala dɔrɔn dɔn an bɛ Kouta dɔrɔn de dɔn ahan yéen ko dégg nee na moom kontaan na nag man yaakaar naa nag yéen ñi nga xam ne yéen fi dëkk yéen a ñu ko gën a xam yaakaar naa ne bu ñu doon bambara nag su ma tuddee Dakar ne Malika ne Kër Massar ne am tuwaa ne benn brak yaakaar naa ne mbokk ya fa nekk bare nañ kon yaakaar naa ne kon yéen tey ji am ngeen mbégte nga ce ngalama Touré Mbandi Mori nee nga kontaan nga. kontaan nañ bu baax a baax a baax. kontaan ngeen kontaan nañ bu a baax. macha allah lii lañ ci am lii rek lañ ci am yaakaar naa ne yàlla nañu yàlla wanewaat sama cameraman kon baax na naa leen ba léegi ñu ngi ci biir kër gi yaay ñu ngi lay nuyu. Euh, maa ngi leen di fay jërë ngeen jëf man maa ngi tudd Oumy Sanoho maa ngi dëkk Soudiane Bambara. xamuñu dara Soudiane lañu am ñu ngi ci biir àll bi waaye yëguñu ñu nekk ci teeru bi Soudiane Bambara laf cat Soudiane Bambara yëguñu dara kenn du leen ko nettali yéen a ko gis seen bopp waaw Soudiane Bambara nag li ñuy ñaan yàlla suñu doom yi nekk ci àll bi ñu ngi leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram yal na leen yàlla may loolu wërsëg yu bari bari bari yàlla mosal leen ci seytaane ak balaw loolu lañ leen di ñaanal mais fi mu nekk xale yi fi ñu yóbbu Suujaan vraiment man dama cee kontaan xale yi dañoo bëgg Suujaan ah weeru koor bu jotee lii la ñuy def Suujaan gàmmu Suujaan bu jotee xale yi yëpp ay takku ñëpp ay dox biir Suujaan Suujaan tey jii boo ñëwee fii da yaakaar ne dëkk bu mag la te yàlla xam na ko bu magee tey xale yi ñoo tax dëkk bi rëy dañoo bëgg Suujaan fii la ñu juddoo yaroo mais xale yi dañoo bëgg Suujaan dañ ko bëggal seen bopp te wax dëgg yàlla fi nga juddoo yaroo fa boo ko bañee rek nga gën cee ñaaw. Soudiane lu ma yàgg dégg la tuñ la boo xamante ne boo ma ko yàggee dégg depuis ba ma nekkee booy waaye nag gis nga de li yaa su borom dogal tey maa ngi fii tey seen biir jóge naa Dakar ñëw fi yaakaar ne mbégte laay am parce que su ma nee mbégte laay am mooy xalaatu ma woon ne dinaa dox tey ba ñëw tey ji si biir dëkk bi toog ak ñoom tey ji ba leen di laaj ni dëkk bi doxee yaay gannaaw bi nga présenté woo ba pare tey ji ah bisu gàmm gi tey seen i doom seen i sët seen i jarbaat tey jii ñoom ñu nekk ci tey jii taxawu tey jii ci bis bi te jii yéen ban taxawaay ngeen gis ni carrément kat ah njaboot gi def nañ ko ci biiru gàmmu gi. njaboot bi daal def nañu lépp tant bi defar nañ ko euh, lekk bi manqué wul dara manqué wul seen loxo xale yi daal fi ñu waroon a taxaw taxaw nañu foofu te ñun euh, li ko bi wax la xamuñu dara njaasaan lañu ñu am kunta kunta ñoom lañu xam ci la ñu yaroo ci la ñu juddoo bokk yaroo ci kunta lañu xam kon nag bu ñu toogee ba waa kunta di ñëw fii Suujaan ñun dañuy kontaan rek man kay li ma ciy teg mooy yàlla nañu fekkee déwén buñ ko fekkee ñu tal ko ñu jobooti barke yàlla mosal ñu seytaane yokk wërsëg yu bëre ba nga xamante ne li ñu def ren déwén nañu def lu ko raw loolu la am li ma leen di wax. njaboot gi nee in incha allahu rabi ko fekkee. bu soobee yàlla. Euh, xam naa ne moom fi mu nekk nii ni ngay waxee ne xam naa ne mbégte la xam naa ne nag kontaan nga kontaan goo xamante ni yaakaaroon ne yaakaar lu mel ni sax xalaatoo ko. te xalaatuma ko woon xalaatuma ko woon. waaye léegi nag yàlla nag day mbir day dox. mbir day dox dafa dox léegi ba egsi ci ñun kon nag bu egsee ci ñun rek ñu jël ko te talal suñu loxo yàlla mu gën ñoo yokkal doole bu bëri bëri bëri bëri loolu la ñuy ñaan yàlla yéen a ko gis suñu kilifa gaa ngi noonu yaakaar naa ni ki déplacé na bi Dakar ba fii yaakaar naa ni kooku waa dëkk bi amuñu fayam yal na la yàlla defal jàmm yaakaar naa nag loolu mooy li nga xamante ni moom laa leen di wax ba léegi nee naa leen tey ji fii dara tey ji du fi jeex ndax yaakaar naa tey la ak suba waaye guddi gii nii li ma ci jaaxal mooy dama commencé gis loo xamante ni man ba mu juddoo ba tey gisaguma ko ndax ni waa dëkk bi pare dinaa leen wan baas bi dinaa leen wan mbooloo bi dinaa leen wan kilifa gi nga xamante ni moo waral bis bi ndax gàmm tey bii dina wuteeg yeneen gàmm yi de. yéen ni ngeen xamante ne nag yéen a indi tele bi dama leen di ñaanal yàlla gudd fan ak wér gu yaram ay xale ngeen yal na ngeen toog ba màgg yal na ngeen yokk ba ngeen loolu laa leen di ñaanal leen dara. gisagu leen dara ni gisagu leen dara ah, lu fi jot a gis suñu maire bi nga gis ni mu toog bu duggee ci tante bi doo ma xamee looy wax <laughs> dégg ngeen mu wax dégg ngeen ko man waxuma de moo wax nga ni bi bu duggaatee ci biir tante bi boo ma gisee doo ma xamee de pour nga ne kii maire bi dañ wax fii ci kër gi ah. déedéet doo ma xamee waay damay bañ ba tëdd ci suuf sama jinne caméraman nañu pause ba léegi nee naa guddi gi la bu ñu guddi gi ba léegi yéen a ko gis depuis si suba léegi yéen a seetaan yaakaar naa nag yéen ñi nga xam ne ñuy seetaan nag andikat bu leen musa taay ndax bu nee leen bu leen bi ñu dugg nag yaakaar naa c'est la première fois nag ñu dugg boo xamante ni yaakaar naa ñëpp mànkoo nañ nekk benn parce que bu ñu nee mànkoo nekk benn mooy amul xale amul mag amul ndaw ñëpp mànkoo nekk benn papa ñu ngi lay seetaan. waaw ah, fay nuyu la. bàyyi ngeen jàmm baax a ah, ñu ngi ci jàmm. papa tey bisu gàmm gi tey jii naka ngeen ko préparé xanaa neex rek a xumb ak sant suñu borom ak suñu ñaar waajur tey ñu gis ni tey seen i doom yi tey ñoo organisé tey ji yéen ngeen nekk ay kilifa xale yi ndaw yi daan ne papa yi ak suñu yaay ak suñu maam yi dañoo bëgg ñu dem toog noppale ñu ñu jël engagement bi def lépp tey ji bi ngeen gisee ni seen doom léegi ñoom jël nañu engagement yi def ko yéen taxawaay bi yéen naka ngeen gisee tamit taxaw yi nga seen doom def nañ ci dëgg-dëgg dëkk gi ba mu taxaw ba léegi cosaan ndax alhamdulilah képp koo xam ne seetuñu doom jàmbur seetuñu jaago seetuñu keneen doomu aadama doomu aadama la ñun jikko gi la ñuy xool sa bu baaxee rek mun nga ànd ak ñun ba abadan wante sa bu xaw a lëndëm rek duñu la ñeme waaw dëkk gi nag alhamdulilah ñu fi ñëwoon sama maam mu ngi jógee dëkk bu ñuy wax Sigaso jar eh, Kidira ñëw fu ñuy wax Tatin Bambara jóge foofu ñëw Sambadia bu Cheikh Aboubacar ñëw ne kaay leen toog Soudiane dëkk gi Soudiane la tudd ba ñëw toog fi nag ñu am taranga ñu ne amuñu kenn man de amuma kenn ku dul sama ñaar waajur ak képp koo xam ne sant nga kunt muy góor muy jigéen soppi na la waaw ak sama borom bi ma bindi ah kon yaakaar naa ne ko gis wax ji leer na mais papa comme que nag ñu ngi waajal li nga xamante ni mooy dem ci baas bi yéen nag naka ngeen waa euh, war a waajalee seen bopp ngir dugg ci biir baas bi jàkkaarloog seen doom bu soobee yàlla man de kenn du ma jiitu foofu mosuma euh, euh, dem ci béréb timis fekk ma fa te nekkuma ci sama njaboot déedéet wante comme sama jigéen yaa ngi fi sama njaboot yaa ngi fi sama yëpp a ngi fi damay toog ak ñoom ba bor set incha allah yàlla bu ma may kattan képp koo xam ne ñëw nga fi tam yàlla na fekk fa jàmm yal na yàlla wàcc jàmm ci kaw suuf yàlla na jàmm nekk Sénégal tous les Sénégalais waaw yàlla mun na ko yal nañu ko yàlla may. bala nga wéeru ci nit na nga ci yàlla. kontaan nañ ci yow. waaw jërëjëf. naa leen mbégte gi yéen a ci suuf kon nag dañu sañu jaaj yi weer ko sol dàll yi sol grand boubou kurus gi sol kaala gi. jubali fa fa leen jubali ci loolu ngeen di dégg ci suuf kon nag wàccoon naa ak yéen ba ca kanam. sama wet ak ñi nga àndal. alhamdulilah kon ñaan gi yegg si yaakaar naa ne bal bu ne tàkk moom yaakaar naa ne fa la ñu mujjee jaaree nag yegg fan jëm sama caméraman ba léegi nag ñu ngi ci biir Badiane ñu ngi lay nuyu. maa ngi leen di fay. mbaa yaa ngi am jàmm. maa ngi sant yàlla. Badiane tey dafa mel ne kaa kontaan. ma kontaan ndax famille bi daje na fi ne ko famille bi daje na fi dëkk bi dëkk taranga waaye nag ñu ngi sant yàlla ak suñu borom yàlla ak yonente bi sirif mi ñu ngi koy sant di ko gërëm ndax boo gisee lii dem tey ba nit ñi ñëw fii di xool de suujaan suujaan yàlla ak sirif la ndax moom moo ubbi yoon bi moom moo wax waa Dakar yi xale Dakar nañu daje ñu daje nag ñow def fi organiser boo xam ne képp ku joxoon dëkk bi ginnaaw jox nga ko léegi bopp ndax poste de sirif sirif ñu ngi koy sant di ko gërëm ñun ñi toog nag képp koo xam ne gis nga ko fi ci dëkk bi famille la jàmbur newu fi famille rek ñoo fi ne kon nag ñu ngi leen di gërëm di ko di leen di sant moom nag ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax doom la doom bu am jom la am na jom am na teraanga am na la am na fayda. tey jii mu dem jël tey télévision déparé ko Dakar indi ko ba ci dëkk bi te loolu jafe la. tey ji moom mu yëkkatee ne kat sama biir dëkk laa ko defal ndaxte man ak ñoom benn lañ ndax samay kilifa fa nekk kon télévision bi laa déparé yóbbu ko ci biir dëkk ba ànd ak yéen couvrir événement bi kon yéen lan ngeen koy ñaanal. xanaa ñaanal ko ànd ak wér ak wérle dañoo kontaan ci moom fan yi nga xam ne papam ñàkk na ko moom yal na toog ba ëpp ay papam ak ay maamam ay fan yal na gunge ay njobootam bu ñu séddale dara ginnaawam ñoo ngi koy sant di ko gërëm sirif dañoo kontaan ci moom waaye xale bu am jom la am na jom am na fula am na fayda voilà. kontaan nañ waaw kontaan nañ. alhamdulilah nee naa la ñaanal na ko waajuram bi nga xam ne génn na fi yàlla ko yàlla yërëm xaree ju ko aljanna firdaws kon gàcce ngàllaama nee naa leen fi àdduna la rek na lépp rafet ndax yaakaar naa bu rafetee rek mbooloom yëpp dajaloo waaye bu ñaawee tamit nag mbooloo mi tas kon yal nañu yàlla musal ci loolu saa su ne nag yal na jàmm di am ndaxte bu njaboot gi am jàmm yaay na nga def maa jàmm maa ngi fi jàmm yaay tey jii njaboot gi tey jii ah, dajale leen ànd ak yéen yéen ngeen teete njaboot gi te bisu gàmm gi tey naka ngeen ko waajale ak seen i njaboot xanaa jàmm ak salaam rek di ñaan ci sunu di ñaan ci Ameth Kounta bu ñun fii dëkk bi benn bopp la amul ñaari xaajal ñu ko àtte ñeer sërif mi moo indi lii ci dëkk bi kon nag moom lañuy ñuy gërëm di ko sant man nag samay rakk fonk nañu ma bëgg nañu ma amul werante amul xuloo fii dañu doon waajal suñu waajur kaamil tey mu Dakar gàmmu bi kon nag ñu ñu ngi ñaan yàlla jàmm rek moo fi ne jàmm ak salaam boo laale kenn rek laal nga ñëpp kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant yow tamit yal na nga yàgg fi wax bi jarul sore kii kii lu ñu wax rek moo fi ne waaw ñun benn lañu benn bopp la kon nag ñu ngi leen di gërëm di leen sant yéen yéen tamit yal na nga yàgg ci sunu kanam yal na liggéey bi barke yal na ngeen toog ba gis seen set yeeg seen lépp ngeen toog bay raam ñu leen ah, yaakaar naan nag ñaan ngi yàgg na parce que bu ñu nee bal bi dal na rek bal bi dal na ki nga xamante ni tey ji moom moo ñu déplacé loo diggante Dakar ba fii tey ji mu doon seen doom mu déplacé talo ba fii tey ji lan ngeen koy defal ci ñaan ak xol ak mbégte xanaa kontaan rek di ko ñaanal yàlla rek yàlla na yàgg ci kanamu njaboot yi moom xale la waaye dafa am xel ndax am na ñoo xam ne ñoo ko mag ci dëkk bi mais amuñu xel bi moom bu doxee ba indi télévision ci dëkk bi ñun amuñu dara bu dul mbégte rek ak ñaan moom lañu ko defal yal na yàgg ci sunu kanam ñun sunu xool dafa fees waaye kii kii amuñu lu ñu koy fay. ñaanal leen ko waaw ñu ngi koy ñaanal nag. xam nga nit ki boo ko mayul xaalis sax nga may ko taranga rek taranga moy nit ñun nag jox nañu taranga fonk nañu xam nañu xam nañu ñun ñooy kan bàjjen rek lay wax waaw bu ñu gisee day langaamu ci ñun rek bàjjen kon nag ñu koy ñaanal ñaanal bàyyi la ñu jël nag nga ma ne seen bàyyi lañu jël seen baay bu fekkee moom rek moo nekkoon Soudiane ba léegi leneen la ñuy wax biiru Soudiane seen papa bu fekkee mu ngi doon dund ba heure gi leneen lañuy wax Soudiane man foofu rek la yem kon yal na ñun yëpp ñu ngi koy ñaanal ñëpp di ko ñaanal lu baax yal na avancé ba ci kanam a kanam a kanam a kanam waaw bu ñu diw ku baax la dañ ko dem laajte ji mbokk ya mbokk yee ko seede seedewu ma ko kon yaakaar naa ne xol fees na falaay mën a yem man ak yéen ba ca kanam alhamdulilah amaat nañu mbégte bu baax a baax alhamdulilah dañuy delluwaat gën a santaat bu baax a baax ndax yaakaar naa ne nag gaa ngi nii parce que bu ne cappaandaw gi nag yaakaar naa ne ki war a bis baa ngi nii yaakaar naa nag bu ñëpp taxee ne mooma gën naa ne mooma yaakaar naa nag ndakaaru ba fii nag doon na loo xamante ne nag yaakaar naa ne tey boo ko doon daw waxuma la ak benn fan waa duñ ko daw ay at du fee yegg si ah bi gannaaw yàlla ba nga yeggsee ak jàmm ba mbokku taalibe dalal la tey bi nga ñëwee tey fekk mbokku taalibe yi tey ji ñu taxawu la teeru la tey ji fi nga xamante ni mooy ci biir dëkk bi tey ji ban mbégte nga gën a am sëñ bi mbégte bi sant rek ndax jaam bi moom dara waru ko lu dul sant ak nu yàlla mën a feeñoo ndax euh, ku ma ne woon bés bi dana ma fekk ci dëkk bi ah duma ko weddi waaye it dana ma jaaxal lool waaye comme yàlla indi nañu ba ñu toogee nii ah li ne fàng moom jarut a jeex kon ñun ñëpp dal nañ ci rek ni ko xale yi di waxee dal nañ ci ndaxte ñu woola ci yàlla nga jóg yàlla rek tax soo ñëwee fi nga yegsi amul lenn loo fay yëg lu dul yàlla yàlla boobu nag lañ fi yëg mhm, incha allah. tey jii ah, macha allah sëñ bi nuyoon na mais sëñ bi yaakaar naa ne fan yi ci ginnaaw mbokku taalibe yi comme li waral tey ji moom lañ defoon bari ni tey ma àndoon ak yéen tey jii waroon leen fi nga xamante ni mooy départ yu sëñ bi doo ko tàmbalee Pikine ba biir ni gis ngeen ni ko mbokk taalibe yi teeroo ak ni ko mbokk taalibe yi tëralee sëñ bi bi nga départ Dakar départ waat Bargny jëm si ba ci biir dëkk bi fii bi nga ñëwee xolu mbégte gi ci biir taalibe yi ak yërmande gi xol bi ci lan lay yëg. mooy li may wax rek man moom gannaaw bi ma jógee di ñëw rek laa commencé di sant sant boobu ma doon sant nag moo tax bi ma yegsee eh, dama yëg yokkute ndaxte nag ahankay eh, dafa jot. li ñu jëlee pikin mhm. génne ñu fa mhm. yóbbu ñu Bargny mhm. jëlee ñu bari Bargny indi fii ñu tey moo ñu fii jëlee yóbbaat ñi feneen ak feneen ndaxte nag yàlla daal mooy xool jamono bu ko neex mu xool lu ko neex mu xool ku ko neex mu def ci moom la ko neex jullit daal bu bëggee noppalu lu neex yàlla na ko neex loolu rek moo fi ne sant rek ñun sant rek moo ñu war sant rek. alhamdulilah nee na sant rek moo ñu war comme nañ ko waxee woon Bargny dañ ne la woon nga tàllamp yi yaakaar naa ne taal nga lamp yi ba tax tey ji ñu yegg si fii mbokk taalibee nag ñooy ñaanaat na sëñ bi gën a talaat lamp yi ndax ñu gën a dépassé waat waaw mbir mi amatul tànk gannaaw de fii ku fi ne ak li fi ne xanaa ki xamul lan la wala di yox yoxi waaye bu fekkente ni yàlla kese la ñun dara ñoruñu lu dul baatu laa ilaha illallah bi di wër réew mi yëpp di ko ñoox ci xolu jaam yi ndaxte baatu la boo xam ne ñu ngi koy tudd fu ne waaye ndax xam nañ ko baat la boo xam ne ñu ngi koy tudd fu ne maa wax ndax yëg nañ ko baat la boo xam ne ñu ngi koy tudd fu ne ndax ñu ngi koy dund ndax buñ ko doon dund tey jii li réew li xew ci réew mi dana fi xew mën a mën a bi dana bari parce que boo ne laa ilaha la nee nga dara nekku fi lu dul yàlla waaw comme ne nga dara nekk fi lu dul yàlla lan moo tax doo delloo sa bopp ci yàlla kon ana yow loo fiy bëggati wala loo fiy bañati ana yow loo fiy rëy rëylu ana yow loo fiy iñaanati foog ñu taxawaat ñun ñëpp nag réew mi fi mu toll nii lëndëm lëndëm bii ñu nekk dara taxu ko lu dul lëndëm lëndëmu jaami lëndëm lëndëmu jaami ne benn lumière moo koy taal mooy baatu laa ilaha illallah ñun ñëpp nañu dellu ci baat boobu rek léegi léegi xol yëpp leer nañ ni lumière bi bu boobaa du ñu bañante suñu biir bu boobaa du ñu soxorante suñu biir bu boobaa du ñu suñu biir bu boobaa danañu gudd fan ñu wér te danañu am mujj gu rafet. xol yi tooy na sëñ bi wax na yaakaar naa ne képp koy wax ba dégg noddu yaakaar naa ne amatoo dara loo ci tegu ndax baatu laa ilaaha illallaah mu doon baat boo xam ne baatu dëggu la sëñ bi yaakaar naa ne ñëw gunge ànd ak yow ba ci biir baas ba ci kanam tuuti incha allahu rabbi ñu bàyyi la dernier kàddu yi rek nga tàggatoo ak sa mbokk taalibe nga xam ne ñu ngay seetaan di leen ñaanal rek di leen santale yàlla ndax damay wax sant yàlla xamal li la yàlla defal ba noppi xam bi ngay xam li la yàlla defal moo lay yëg loolu li mu la defal yëg boobu ngay yëg nag moo la validal cant ji moo la santoon moo la digoon dina la dolli te dina la dolli ndaxte ba mu la nee santal rek ma dolli fekk na mu may la ba pare na nañ gën di sant suñu borom bu ñu xeeb li ñu yàlla defal nañu gën a yërëmante nag suñu biir mënuñoo sant yàlla bëgg ci yàlla li ñu bëgg ci moom te fekk ñu bëggal yàlla li mu bëgg yàlla ñun la teral ñu doomu aadama yi foog ñu dellu siwaat suñu xel ak suñu xalaat yi ñu dimbalante suñu biir ñuy suturaalante suñu biir di jàppante suñu biir yàlla tax li ci des bu ñu yeggee ca tànt ba ah yàlla feeñoo rek ñu feeñu àndoon ak moom feeñoo ak jërëjëf asalaamaaleykum wa kon kontaan nañ dernier message bi yàlla na jàmm am ci mi mu réew yàlla na jàmm sax ci biir Sénégal. pas-pas bu ànd ak ngëm ak bëgg-bëgg ci nit ki nekk li ngay ci sa tarixa te bi Mouhamed léegi ñu gis Dip Sow ba léegi ba tey ñu ngay teew waaw léegi yow yaa ngi gis tey ji léegi ñu gën tey bëgg bëgg tey bu dellu léegi boo xoolee ni tey xol bi tey ak bëgg bi tey lan la a bokk ci ñu wër xalifa bi nekkoon ci yitte ndigalu xalifa bi mais daanaka dafa mag ñu topp bi ngir yàlla ak seen pas-pas ak seen gëm-gëm mais ku gis lii xam ni li fi mag ñi jëmbatoon mu ngi muy pas-pas ak ngëm waaw ci biir incha allah rabi ànd ak yow daal di daal di gunge ba ci biir Passe incha allah. incha سيدنا محمد كل ما سجاوى النعم يعمل على صفه يعمل على صفه يعمل على صفه يعمل سيدنا محمد كل بدن يعمل سيدنا محمد كل ما سنعمل نعو أيوة في دوسي نعو في دوسي رمل Muhammad yow yaay yow yaay yow yaay أشرف الخلق بلا يبن muy maami muy maami muy maame muy maame Ousseynou Assane mooy maami Ousseynou Assane nanga def o neegi Kawsara sa turandoo Ousseynou sa turandoo Ousseynou sa turandoo ay waay moo di Seexu Asan waay waay waay Ousseynou naanul may mu na naanul xanaa Ousseynou naanul may mu na naanul xanaa yi kawsara la muy naan xanaa te root ca kawsara sey nu ol ba jeex mu naan yaa rabana yaa rabana yaa rabana ihdina wa ala safin yàlla Muhammad bu jullit masaana dee nu gas ko suuli ko Lulu jaajara jaajara suñu ma xol ba jeex mu naan yaa rabana yaa rabana yaa rabana ihdina xeex nanu waaye daal lu dem aljanna danoo gëri Zubayru kooka fertuna Karbala ni Karbala ni Karbala Karbala ni Karbala ni Karbala Karbala ne ya Makka Karbala waaw maa ngi ñaan képp ku fi toog rek tey julli te sopp yoon ci yàlla Muhammad yéen ñëpp si tas yoon ñu magal Seydina Muhammad ndax mooy sangu sangu yi ku ci jaayu rek yombal xiyaam yàlla nga day gën yàlla Muhammad mu tàbbale aljana yéen ñëpp jug leen taxaw ca kaw ñu magal Seydina Muhammad ana sa bay yéen أنا صفير أنا صفير أنا صفير أنا صفير سلام على من دار سليل أبوي لا إله أيوة يولا إله صفية سلحية على صفية سلحية على صفية سلحية على صفية يا الله لا إله إلا يا لا إله إلا سلام محمد يا a ana jigéeni aljana ana jigéeni aljana jigéeni aljana ana jigéeni aljana ah jigéeni aljana na Isa dañoo di nokkeel asekum tasul dafa ñëw jënd leeri rasul malaaka yaa nga naan moom laa sugalal kamandil jëlal dabi sujjoot dalal sànni kaay nuy xool yaram ba tëdd na moo di bàyyi ma tuuray ana soppe ak kër laay laay laay laay laay خلايو شاب الخلق سيدنا محمد محمد رسول الله حرم بدر دار خرف خندق دار خرف وسيس بان دار يا ماما يا ماما يا ماما دار مولا النبي بدر من عدلين سيدنا محمد بدر من عدلين Ay, tú lo me enseñas ya. ñaaw ñaaw ah ku la bëgg a ñaaw ñaaw ay waay fi doo fi ñaaw fi nga mala tërale si du naa mu amat ah ينالني كتب رسول الله ينالني كتب رسول الله ينالني كتب رسول الله ينالني كنت قلبك رسول الله دخلني مغول قبل ما نقري بالخير تيرل دخلنا زي نوري نقري ومجي ما يلالاي وعلى سبيل الله محمد ci yëral defe naa day na waare na bu reewam ñaway laala ab lay balax ku ne bal ka ci yëral defe naa ne dina boore ay sobala borom belel ah ku sopp Serigne Bamba dafa mi say baaraam Serigne Touba doo dee man galang ay man Sëriñ Tuuba ah ay Sëriñ Saaliwu Mbakke la ko bi Sëriñ Saaliwu wax leen Sëriñ Saaliwu ay waay Sëriñ Saaliwu Sëriñ Saaliwu Sëriñ Saaliwu ku bëgg Sëriñ Saaliwu sëriñ Saaliw bëgg sëriñ Saaliw sëriñ Saaliw Mbàkke yaayoo Mbàkke yaayoo Mbàkke yaayoo yaa fi def lu jar moo waral ma naan yaa fi def lu jar moo waral ma naan yaa fi def lu jar moo waral ma naan ah li xew ci lu wal masaliw الأعتقاد والنور والمسالم لكي وجسمي وإني سالم آه سالم بكر am na mag di woy sëriñ Fallou Galas boyoon ñaan du gaaw géey ana sa bëj sëriñ Fallou Galas bàyyi meen sëriñ Fallou Galas borom na am mu am ak du am du am borom naa am moo am ak doo am doo am borom naa am moo am ak doo am doo am ku bëgg sëriñ Fallu jógal ku bëgg sëriñ Fallu jógal ku bëgg sëriñ Fallu jógal ku bëgg sëriñ Fallu jógal ku bëgg sëriñ Fallu jógal borom naa am moo am ak doo am doo am borom naa taw mu taw ak du taw du taw borom naa am mu am mu am ak doo am doo am borom naa taw mu taw du taw du taw ah sëriñ bi mooy bàyyam sang moom Cheikh Ibrahima Fall lamb na be moom sene wo yaa amar fa ati tana la sukaabe no ala ne jeey ay waay damel sunjoodo ah damel sunjoodo ah damel sunjoodo damel ku jóge damel damel damel damel ma samba tawooyu damel damel damel damel ma samba yaaya faal ay way xanaa xamee ma sëriñ doo wax ma woo na ko dëggal ay ba ba sidil xaaji Maalik bakri dërëb maan ana makum majabo ana tijani talib besir ana tijan talib besir ana tijan talib besir ana tijan talib besir wani bëgg Serigne Babacar ana talib besir ana bëgg Serigne Babacar sama tijan

te gën a bëgg sëñ Babacar ku bëgg sëñ Babacar burki ndar ndar la burki ndar ndar la burki ndar ndar la ku fi gën naar way ay boo miisal sa naar way ali boo miisal sa naar Yai da pajai, yai da pajai, yai yai. Yai da pajai, yai da pajai, yai yai. Ay. Alhaji Mansour Bal Khawmi. Alhaji Mansour Bal Khawmi. Dawdal Jalalati. Sabran. Wa da talibe shi. Alhaji Jalalati. بكم سلما يا مدب القوم سود والبعد آمن سوري آمن سوري آكو بكو سنما بخر يا لنجل يا دبن بان سيدي لنلول واو daan nga seede loolu Abubakar daan nga ah, aa mu yaaya sàmmay naar ku bëgg Sëriñ Babakar Si jógal tana mbay mbay mbay mbay ay waay yaay daba njaay yaaya sàmmay naar mbay ba sàmmay naar maam ke sàmmay naar muy mi ga sàmmay naar bu doon dëkk mu neex nga mel ni bàyyi mu daal di lay neex nga bi yàlla ci bay de def na ko xalifa la mu jàlle noor waaw waaw salaawa salaam kii jaani bu nu sàggan ay gunu sàggan ay gunu sàggan ay gunu sàggan may ku ci sàggan ñu dem balaa gunu sàggan may ku ci sàggan ñu dem balaa gunu sàggan ëllëg ca kaw sara ëllëg ca kaw sara ëllëg ca kaw sara mam may bu naanee mam may bu naanee waaw waaw gisuma ko gën a baax ku gën a rafet gaal gisuma ko gën a teey Ababacar Ndéby yàlla ki koy def def na ko xayma ma leen siyaare jàlle doon lay ah, lay la laa ana xaadir yeey ah, ana xaadir ana xaadir ana xaadim ku fi xaadim jógal taxaw ku fi xaadim jógal taxaw ku bëgg jël li jógal taxaw ku bëgg jël li jógal taxaw sa jëlee saytu bi an na la ولولايته وغمم بقدري في كل حالته سيد بأن الله ولولايته وغمم بقدري في كل حالة آه مبجلي مبجلي maami Cheikh bu Kunta borom Njaasaan ah am ko fi Cheikh bu Kunta borom Njaasaan ata ana la di ramas du Mustafa Duli min ab xawsini wa jilaani ata muriduna kun abidan من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله فقل أخبر من داره dama naan ma ca Njaasaan kenn du réew sama ci gaañu ci gaañu ci gaañu يا بلال باعي فاطمة رقى يا أم كلثوم سيدنا ماما كتب لا ينبت يجي يا يمدى يا بلال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ndey gi ma jur gënal ma baay gënal ma gënal ma soxna ki doom si na Muhammad su ma tëddee ba guddi gi xaaj nala ya neexoo nala ya neexoo neexoo neexoo neexoo dama naan bërët sama nelaw jeex sama xel mépp dem ci Seydina Muhammad ak waa këram lu waay jàpp na bee mu gën Seydina Muhammad ku sopp yonent bi ne ni say baaraam yan bu gaaw baa ngi noonu yan bu gaaw baa ngi noonu ku ko xam ak ku ko xamul ku ko xam ak ku ko xamul yoonu gaaw baa ngi nii wajir ngir ko teera yoonu gaaw baa ngi <laughs> xanaa xamoo xol bu bëgg si naam mamat xol bu bëgg si naam mamat doo tiit doo jaaxle doo jaaxle sidina mamat nii may way ku sopp yonent ni nga lii say baara say baara yonent bi yonent bi borom bari ruuma ca Madina mooy Seydina Muhammad kayfa tarxa ruqyaka al-anbiyaaw ya samaa wa ma tawarrafa samaa lan yusaawika fi ulaa'ika wa qabduhaa la sanaka duunahaa samaa innamaa masalu sifaati kal-naas كما مثل النجوم الماء أنت مصباح كل ظل فتصدر إلى أن دويك الأدواء لك ذات العلوم من عالم الغيب ومنها على دار الأزهار لم تزل لم تزل لم تزل لم تزل لم تزل لم تزل لم تزل في دماء الكون تعتار لك الأمهات والأباء ما مدت حضرة من رسل إلى بشر حومها بك الأنبياء تتبع بك الوصول وتسمع بك الياء بعدها الياء وبدا للوجود منك كريم من كريم بايم يمنى بكرماء سيدنا محمد ما نسب تحسب الله الغلاء حلتها نجومها جوزاء حتى ذا يخلص دجل وفاري ومحيا كشمس من كمدي أسفرت عنه ليدة الخراوة ورنا جهلنا فيتنا تجقنا li ma jaaxal mooy fii ci sunu sunu réew Sénégal gii ma dëkk moom laa bëgg a wax. Sidna Mamad mi may way surtout que Cheikh bu Mamad borom Ndiassane ñëpp daanu. nga tudd ma borom Touba gaa yëpp ay daanu. nga tudd maam Limaamu Laay ñëpp daanu. nga tudd Seydi Haaji Malick Si gaa yëpp daanu. ba tudd Baye Niass ñëpp daanu ba tudd maam Omar Ngoone Ndaal Seck borom Thiénaba ñëpp daanu ba tudd maam Limaamu Laay ñëpp daanu li ma jooy loo mooy damay tudd turu Sidina Muhammad am ñoo xamante ne sax duñu ko màggal am ñoo xamante ne sax duñu jóg gaa yi caaxaan baaxul su ngeen déggee ñu tudd turu Sidina Muhammad bu leen fekkee ngeen toog da ngeen wax ni ñokke jóg màggal Sidina Muhammad coow li coow li yaa ko bu Seydina Muhammad ne Seydina am borom bariwu almat sommat bii nag moo tax ñu taal ko moom Seydina Muhammad bu du woon ak moom duñu ko tal déedéet ay gaay yi bu nu naxante bala noo xam kan mooy Seydina Muhammad bu nu demee ca taxawaay ba ay ñetti fan bàmmeel du yaay du maam du baay ku lay mënal dara ay yow soo bëggul woon Seydina Muhammad perte nga ko sopp yeneen ci bi ne ni say baaraam xanaa xamaa xamaa ku sopp yeneen ci bi ah xanaa xamaa ku ko tuddee doom moom Seydina Muhammad jërëjëf sa yàpp yaram araamam na sawara ana yaayu Muhammad yi ana yaayu muhammad yi ana yaayu muhammad yi baa ni ko bëgg a tuddee doom xanaa xanaa sidna Muhammad ku ko tuddee doom sa yàpp yaram araamal na sa wara xanaa xamoo yonent bi may way ku ko tàntal dem ajana moom sidna muhammad am na leneen lu dàq loola bu ne tàgg sidna muhammad ku jóg taxaw dem àjjana ngir Muhammad Rasulullah bu ko ngi dina waa bu ko ngi dina waa hayya ya dal Muhammadina borom xam-xam daan mën a tudd tur yëpp ci yàlla ay mbooloo mee tey jii ma way Seydina Muhammad lépp moo koy waral moom Seydina Muhammad bu dul woon ak moom dara du xew bu dul woon ak moom dara du am xif والسمع ذكر من عنوانه لمعت في الكائنات كشمس في السماء تلعت وأسفل مدح النبي جل خالقه لولاه ما كان مطلع منتظما دنيا وأخرى بكل قد ابتدأت سيدنا محمد بدون الممدر دخل الموت قد كان نورا ولا لوح ولا قلم ولا سماء به إله قد رفعت ولا جنان ولا نوم به من ولا عرش وفرش ولا خدم حديد بسطت ولا جبال ولا بحر ولا سجر ولا رياح جرت في شعرها وسرت ولا دواب ولا انس ولا انس ولا ملك كشفي ينسي من الجبال وجمعنا Oh,

ku fi baax yow way na yeneen ci ku fi baax yow way na yeneen ci ama sama sunu sama xamante ne yow billah yaakaar naa ni euh, li ngeen gis nii yaakaar naa ni mbégte la tey monsieur le maire tey moo toog bu ne monsieur le maire maanaam tey ci biir dëkkam tey mu am bis yoo xamante ne tey mu doon bisu gàmm mu nekk bis bu rëy tey di gannaaw yàlla nag mu bàyyi itam yëpp daal di ñëw monsieur le maire ñu ngay seet maa lay fay di la sant di la euh, waa dëkk bi yëpp li ko jëlee ci chef de village ba imam bi ak organisateurs yi ak waa Soudiane Soudiane Balla yëpp bàyyiwuma kenn. tey jii ñu gis ni euh, tey euh, yaakaar naa ni bu ñu nee monsieur le maire tey yaakaar naa ni tey jii fi nga dëkk mu nekk tey sa biir dëkk tey tey jii ñu gis ni kat. mbokku taalibe tey organisé nañ bis bi lay bii tey nga bàyyi sa yite yëpp donte dëkk bi xam na nga ñëw teeru tey ci biir bis sa diggante sa dëkkandoo yi lan la. waaw xanaa tëddali sama coloré sama diggante ak waa Soudiane Balla. même euh, man du ma maire commune bi fii maire commune Fimela laa nekk waa Soutiane bala sama diggante ak ñoom lu yàgg la euh, depuis ba ñuy sosee seen njàng yi ba tey euh, dama ci ànd ak ñoom ndax mbiru yàlla moom euh, man duma ci taaya taaya def li ma ci war rawatina nag ñu nekk ñoo xam ne ñu baax lañ am diina lañ ñu fonk seen bopp lañ nekk ñoo xam ne seen lépp dañ ko yóbbu wekk waa Ndiassane waa Ndiassane itam nekk ñoo xamante ne wax dëgg yàlla macha allah képp wax ci diine di wax ci yonent bi wax ci xaadir munoo jéggi waa Ndiassane ma gis ne njaboot bi fi nekk yëpp li ko dalee Soudiane Bala Samba Dia ba nga xam ne sama commune la bokk Baboucar Komangoy daanaka wa sama waa commune yëpp ñu ngi fii euh, ñëw parce que fii ci commune jilaas labok bokk kon lii euh, sant yàlla la man ñëw ci bés bi du buleet ci man at yi yëpp nag ma ndax ñàkk jot mais ren biñ ma tabee def ma député ci seen bopp gis naa résultat yi ñu am ñun mu nekk loo xam ne lu lu ma rafetlu la ndax ñun liñ nekk nit ñaa ko jot te ñun defuñ leen lu mooy di doxal li président Macky Sall santaane ndax mooy suñu kilifa euh, lu mel ni su amee itam dañuy am mbégte pour xëf fekke ko ndax ñoom dañoo insister pour ma ñëw naam dama war a dellu sax parce que suba dama bari ay programme moo tax mais su ma ko sañoon man ñoom fii ba jàng yi jeex mais ci tey ñoo bari wax dëgg suba dafa am lu war a dox. tey yu ñu ni tey bu la neexoon tey nga yebale bu leen neexoon tey ji am na ñoo xam ne tey ñu ngi sa ginnaaw mënoon nga leen a yabal mais yabaloo leen yow sa jëm bopp yaa déplacé wu ci biir dëkk bi kon yaakaar naa ne képp kuy monsieur le maire yaakaar naa ne lii war exemple tey ji bu leen neexoon nga ne ah man am ci lu ma nekk kat mënoon naa yabal ay nit ñu dem fa waaye teewul yow yaay say tànk jëm si fi nga moo sa biir dëkk ndax yaakaar naa nit ñi buñ la dénkee te bis buñ la soxlaa yaakaar naa da a mën a bàyyi sa def nga lépp kon monsieur le kon ñu ngay jaajëfal maa nga jaajëfal yow itam di la remercier yow mi nga xamante ne nii yaa ngi joge ba Dakar ñëw euh, di jël événement bu rëy bi nga xamante ne ni annuellement ñi dëkk bi dañ koy organiser mu nekk loo xam ne euh, événement bu faar ci at bu yàlla sakk dañuy organiser jàng yi yónnee waa Ndiassane ñu ñëw jàng-jàng euh, yi ma ànd ak samay conseiller ki Abdou Keita conseiller la nekk Bambara dëkk Samba Diallo sama sama deuxième adjointe ak sama jabar ak euh, sama beneen frère pour loolu lan rek jàng yi lu ñu fonk la ndax dëkk bi dañ ñoo fonk te ku la yegg yegg ko donc maa ngi leen di sant di leen di gërëm di la sant yow tamit di la encourager yàlla na sa réseau bi nga yore dem ba euh, suut sa njort yàlla mun na loolu ndax yéen ay xale ngeen euh, di yëngu ci lii ñun dañ leen war a ñaanal seen mission yàlla jàppale leen en tout cas sa boxol seet na ci yéen aussi te déplacement bi nga def ba ñëw fii yàlla nga ñibbi ak jam euh, am ci mbégte. yaakaar naa ne c'est la première fois ma gisante ak moom waaye gis nga li naan nit bu nekkee sa biir gox sa xor nga fet nga àndandoog say nit taxee boo leen yaakaar naa ni lu askan bi soxla nga taxaw leen naa ni. yow moom la askan bi soxla kon nag yàlla baax na xëy na fi nga toog moo gënal waa dëkk bi yàlla la fi yàlla gën a yàlla gën la defal jàmm parce que ñun lii mooy suñu devoir nit ki fa nga nekk di fa liggéey yaakaar naa ñun ñoo war a dox ba yegg fa soo la nga liggéey ñu jël ko wane ko comme monsieur le maire

Mouhamed Becaye ak Serigne Mouhamed Siri ñu ngi koy ziar bu sax si lépp lépp ak Serigne Amady Ly monsieur Al Aïb Serigne Cheikh Becaye Mouhamed Becaye ak Cheikh Albouna Amba monsieur Mouhamed Khalifa Becaye ak Cheikh Serigne Yahya Serigne Bouy Mouhamed ak Cheikh Mouhamed Anta mooy imam Mouhamed Becaye ak Serigne Mouhamed doomam doomam ak suñu bopp Modou Maw dafay ñaan yoon te sëriñ bi agsi bu ko defee dañ koy jox rek kàddu gi bu noppee incha allah nu continuer gi yéen incha allah ba kàddu yi jot rek ñu jébal ko sëriñ ah, bi yàlla tey man la man man la ñu jiital suujaan maa nekk borom dëkk bi kon maa ngi koy jox njaboot gi e, di ko di ko fédéle coloré bi yàgg na nag dama damay fédéle waal coloré bi ren mu xam ne am na borom dëkk bu bees maa ngi koy fédéle waal coloré maa ngi koy dénk waa dëkk bi yàlla nañu ci yàlla jàppale monsieur le maire nag sama wax du ci sore mais boo gisee may may jiitu ci wax ji dama koy bëgg a présenter tuuti ndax dafa yàgg ci dëkk bi bi ñu commencé gàmmu gag léegi dafa ne moom amul invitation de doomu dëkk bi la te mu ngi ni toog waa Soudiane ak may dëgg amul gàmmu gi fi am te te def ci loxoom ren lii ñëwoon bi sax man daf maa bett parce que yaakaaruma ko woon mais dafa ne il faut mu ñëw teewe si ren kon ñu ngi ko ñaan yàlla li ko yàlla yéen yàlla ko yàlla yàlla ko oyof ndax ñaari poste mu ngi nekk maire mu ngi nekk député assemblée nationale kon ñaar yéen yooyu yooyu ko président wóolu ba jox ko yàlla ko yàlla attanal yéen bi mu le maire monsieur le maire ñu ngi lay nuyu di la sant xamal ko ne moom mii nga toog ni jumaa bi mu joxe ganaaw demoon naa fekk ko sali bu nga àndoon sali keroog kii masani mii ci eh, dëju kii eh, combe bi eh, Sorobougou mu ne ma naa def liste nombre ni ñi nga xam ne moom la ñuy am autorisation pour ñu defal may ko juma ma bind liste bi keroog fekk xatoon na trop mu xam ne ma ne nag fii bokkul ci commune am mu ngi amoon bu Samba Diallo ak bu Sorobougou bu yooyu passé naa xam ne dinaa am juma mu ngi nii toog yàlla def ma am juma balaa booba tam ma yónnee ko délégation nekkoo ko jaanam wàcc na ci affaire jumaa juma ne maa ngi koy delloo yaakaar ba léegi te boobu maa ngi koy xamal ba léegi yaakaar googu mu ngi mu ngi nekk ak man ba léegi maa ngi koy delloo yaakaar kon maa ngi koy ñaanal yàlla du ko ko gërëm ngeen baal maax muy góor muy jigéen muy mag muy ndaw di jiital ci nuyoo bi waa suñu jiwri ñu jógee Njaasaan muy kunta kunta yi maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di sant maa ngi feddali itam sama kolore sama diggante ak yéen ndax yéen kat yoon bi ngeen jël fa tabaarakallah alhamdulilah rabbil alamin gis nañu seen taxawaay boo xoolee tey ñi fi nekk yépp commune Djilass ak commune Fimela ñoo fi nekk gis naa fi waa Samba gis naa fi waa Baboucar gis naa fi waa Kobogoy loolu dafay wane ne arrondissement Fimela benn bopp lañ ñoo yëkkatandoo di dóorandoo di daanandoo man nag li ma indi mooy fedele siwaat sama kolere ak yéen ndax jàng yi dama cee bokk moo tax ma ñëw bañ defee délégation it na ma maire jàng yi ren bëgg nañ nga ñëw dama leen ne su ma amee jot dinaa ñëw moo tax ba ma amee jot itam def naa tout ba ñëw ndax nit ki besam rek la am na nag li nga xamante ne nii at bu jot ngeen def ko yal nay doon yokkute ci yéen yal na sax ci dëkk bi en sama seriñ Mohamed Kunta maa ngi lay gërëm maa ngi lay sant ndax gis naa cofal bi nga am ci man gëm naa ne it doo noppee di ma ñaanal te xam naa ne ñaan ñi ngeen may ñaanal mu ngi egsi kon maa ngi leen di sant ci loolu di leen di gërëmit ci taxawaay bi ngeen taxaw population bi nga xamante ne gannaaw yàlla bu nekkee liñ doon tey yàlla ak ñoom te gis naa ne tund bii at bu jot di ngeen fi ñëw lu mat juróomi yoon wala mu ëpp ko loolu nag dafa am lu mu firnde loolu day wane ne taalibe yi ngeen fi am am nañ cofal ci yéen loolu lay wane ne it la ngeen di dund ak seen talibe yi lu lu lu sax la xam nga lu sax ak lu takk du benn parce que lu takk mën nga ko fomp waaye lu sax même boo ko goree mu bi kon yàlla na jàmm sax fii ci Soudiane Bala ñëwuma fa ci politique dama ñëw ci ay jàng ndax nit ki besam rek la am te waa Soudiane Bala wax dëgg yàlla ñu baax ngeen ñu fonk nit ngeen ñu fonk diine ngeen kon maa ngi leen di sant maa ngi leen di gërëm di sant aussi ñi ma àndal parce que ànd naag samay adjoint muy Nafi Paal Baaxum ànd ak may mu na ànd ak sama soxna ànd ak Maseni Fofana ñu jóge ba Fimela ñëw fekk ci ñoom Fatou Traoré nga xam ne ñooñu ñooy ŋànk jàng yi fekk si aussi sama yeneen wolo wolore kon maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Abdou Keita aussi maa ngi lay nuyu parce que Samba Diallo la jóge nekk sama conseiller moom itam ànd si ak man kon wax ji loolu la bu ma ko sañoon wax dëgg yàlla man nekk ak yéen ba ba guddi ba fajar mais wax dëgg suba dama am ay yeneen engagement yoo xam ne dama ko war respecte moo tax ma buggoon rek sànni ci ay kàddu ndax mënumaa ñëw te waxuma moo tax ma ñëw jël kàddu gi di leen ñaan nag yal na jàmm sax fii waa Kunta yi ñu leen di yokkat talal loxo suñu xol sedd na ci yéen lool ndax gis nañ waar bi ngeen di béy gis nañ ñaan yi ngeen di ñaan ci Sénégal gis nañ jàmm bi ngeen nekkal kon suñu lépp jox nañ leen ko yàlla mi nga xam ne nag dara tewu ko te bàyyi leen fi ngeen am njoboot di ko sàmm yàlla na leen yàlla gën a taxaw maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp merci beaucoup jërëjëf. xamal li nga seq ak jeunesse Soudiane ñu ngi si septième édition chaque édition da nga ciy jàpp ñu ngi lay gërëm di la sant pour ne perdu perdre du temps. sa temps dafa sacré duñ la fi téye mais ñun waa Soudiane bon amoon nañ benn geste bu ndaw aussi buñ la bëgg a defal loolu mu ngi ñëw mais dama bëgg a introniser benn présentation bu ndaw ay kilifa fi tax sëñ Ahmed maa ngi lay ziar ak mbooloo mi yëpp bon di ziar Thierno kii toog nii kilifa bu mag la mooy euh, Thierno Ahmadou Bari du Thierno. Abdourahmane Bari qui est bras droit am bu bokkal la jege ñoo fekk ci bés bi kon sëñ bi sëñ Ameth a ngi nii toog moom moo ñu fi nekkal xale yaa ngi nii jeunesse baa ngi nii kon jour bi tey dafa ala mi monsieur le maire amuñu ay milliards amuñu ay or voilà tey sama xool dafa sedd dafa sedd trop dafa sedd liñ lay pour bañ laa téye dama bëggoon li tam ma jël kàddu pour présentation bi rek la mun a introniser gan yi fi nekk amuñu dara nag mais li nekk suñu xol envers yow ñun ñoo ko xam c'est bien vrai que di wax nga ko bokkuñu mairie sax fi laa nga géré ñun mairie Djilass lañ bokk mais lu ñu mos di def lu ñu mos di wax sa jëf egg na fa ñu nekk fi ñu ñàkk fee nekk yaa ngi ciy dugal sa loxo waa Soundiane lañu nekkuñu biir Soudiane mais dañ fi ñëw loo fi def yëg nañ ko kon chapeau léegi dañu amoon lu ndaw benn geste bu ndaw bu ñu lay defar yow soxna si léegi damay woo Fatou Diop mu ñëw fi comme aussi mooy conseiller mairie du village bu présenté bu fii mu ñëw jëkkati cadeau bu ndaw boobu jox la ko yow sa soxna xamal na ne du fa yem suñu diggante ak yow commencé gul sax bay waaj a jeex ñu ngi lay gërëm di la sant bu baax a baax a baax franchement chapeau yàlla day fatu day fatu maa ngi jéggalu bu baax di tuub suñu kilifa gii toog monsieur Siric Traoré c'est un ancien euh, PDS la bokkoon nekkoon fa kilifa bu mag nekkoon administration plus presque plus de quarante ans Sidiki Traoré je pense que bon war nga ko mën a xam aussi mooy suñu parrain national ñaar ñooñu dama leen di lim Sidiki Traoré maire ba jara ay xale lañu nekk asu jàpp association ñu nekk ay mag di participer du jour au lendemain du jour au lendemain bu ñu defee dërëm def nañ ñaar dërëm bu ñu defee erreur ñu teg ñu si yoon ñoo nekk dakaar ak ñoom lu ñu décidé foofu seen loxo ngi si nekk de deux cent pour cent kon c'est bien vrai que ñu taxaw fii jour ji gërëm leen sant leen père maa ngi jéggalu bu baax a baax a baax yegg su soxna xel day fatu jour ji dama bég sama xol moo sedd sama xol dafa sedd tey wax mbooloo mënuma ko mais il fallait que jour ji ma wax lii pour waa Soudiane xam ne ay kilifa fi toog tey ay responsable ñoo fi toog franchement chapeau merci beaucoup. mbooloo mi li ma yore nii monsieur Karim Sène moo ko moom association Soudiane Bala góor ak jigéen yi mag ak ndaw yi ñoo fas yéene tey jàkkaaroo Karim Sène du koy sargal di koy ñaanal yàlla di koy won mbooloo mi Karim lu muy def Soudiane waa Soudiane yi kontaan ci lool. kontaan nañ ci loolu lool kon ñu ngi koy ñaanal yàlla Karim Sène moo xam lu mu bëgg yal na ko ko yàlla defal yal na ko yàlla barkeel yal leen am lu ëpp njortom député la waaye bëgg nañu yal na doon ministre mooy suñu député suñu député gox maire la won waaye mooy suñu député tey yàlla may na ko ndombal tànk député dañuy ñaan yàlla yàlla may ko ndombal tànk mu doon ministre loolu la ñuy ñaan yàlla kon mbooloo mi Karim Sène laa jàkkaarloo war koo jox li ko xale yi jox

Ahmad Khalifa Bekay bi la sultaan asar xool leen tey ci ma leen di wayal askan wi ka bokk waaw waaw askan wi ka bokk waaw waaw minhum waliyun wa minhum muqsitun badalun wal awzu minhum wa minhum baay ko taxay na fi ni no magal bi mo ma Khalifa Bekay am di metti papa

له বলা বক বলিয়া আমার প্রেম মাথালি হবে কাছে রাসূল বান্দার হলে তখন লেলে লোকটা তখন লেলে Mansour Diagne ndax xam naa ni namoon ngeen ko waaye nag moo leen raw di ziyaaraat ajaratu Maymuna Sankare bu Samba Diagne di sama yaay di sama xarit wax naa ni lépp lu ma xew la rek moo ci mën yàlla boole ma ak di Ablaye Baas mu nekk ci Amérique di seq ak man ay teraanga keroog bi mu jóge baytillaahil xaraam alaaji Cheikh bu Diop moo ko taxaw waa Samba Dia yëpp rafetlu ko macha allah yaay ñu ngi lay ñaanal yàlla suñu borom xam na ca barke ñu ngi leen di nuyu kenn ku fi teew rek ci tuuram ak ci santam ci tuuru xadara bi nu bàyyi ko muy Njaasaan ci turu Cheikh Sidi Ahmed al-Bekkaay ibnu Cheikh al-Bekkaay ibnu Cheikh Abu Muhammad ibnu Cheikh al-Bun'aama mi xalifatul aam li tariqati al-Qaadiriyyati al-Bukaaiyati al-Muxtaariyati al-Bun'aamiyya di leen nuyu ci tur rakam yi tedd yi ñu bàyyi leen ci tur doomam yi fi teew te ci kilifteef googu tegu ci kilifteefu Cheikh Sidi Yaxya doomu imam Mouhamed Bekkaay di doomi xalifa bi ñëw ànd ak ay rakkam ànd ak mbokkam yépp mu ngi fekkoog sëriñ Mouhamad Sidi mu Cheikh Sidi Fouye bu Luggel waaye mi ngi fekkoog Zeynul Abidin wul du Cheikh al Khalifa mi ngi fekkoog Cheikh bu Mouhamad Kounta ibnu imam Mouhamad Bekkay mi ngi fekkoog Cheikh al Bekkay ibnu imam Mouhamad Bekkay mu ngi feggoog Cheikh Bourama wuldu Cheikh Khalifa Bekkaay waaye mi ngi feggoog Serigne Mouhamed wuldu Cheikh Bourama mi ngi feggoog Cheikh Sidi Yahya ibnu Cheikh Sidi Mouhamed wuldu Cheikh Sidi Yahya waaye mu ngi feggoog Cheikh Sidi Mouhtar mu Serigne Boubacar Kounta mu Serigne Danka Boune Maam wuldu Cheikh Al Khalifa waaye nag ki ñu àndal nekk bopp yoon dëkk bi miin ko mu miin leen comme ni fi Cheikh Sidi Makhtar bokkee waaye ci beneen cëram moom Serigne Mohamed Khalifa Bekkaay ku ne xam na ni Cheikh Sidi Makhtar mii ma tudd fii la yaayam mbaw waaye Serigne Mohamed mii toog pas-pas moo ko boolee gi yéen ak cofeel mu ànd ak mbokkam yépp ñëw bis bi jaral na ko lu tax tey jii ñoom ñu ngi doon teeru gan ñoom ñëpp fa la ñu nekkoon muy président de la république ñëwoon tey seet si xalifa bi ñu nekk fa ba daanaka ngoon gi ñu topp guddi gi ñëw lu ko waral dara lu fi xew te duñu ko ànd ak yéen loolu nag bi muy ñëw mu ànd ak une très forte délégation macha allah euh, sama bàyyi yi toog Cheikh Pape Mbaye moo ngi nii toog sama papa Cheikh Ahmed Mbaye moo ngi nii toog Sidi Mokhtar Mbaye moo ngi nii toog ndax société bu nekk ak la koy tabax ñii sëti maam bu naa la ñu maam bu nag mooy doomi maam euh, baal leen ma di papa nga gindi ma ah marginti mbay waaw kay marginti mbay moo jur maam bu naa ma mbay wa bu njëkk ba mu teel a xàmmee borom jaasaan la mu teel a xàmmee borom jaasaan yàlla daf ko teel a wan kan mooy borom jaasaan ñu baal ma ci kàddu gi sama turandoo dafa nekk koo xamante ni ñun ñi nekkoon ndongo daara daan nañu toppandoo loolu ñu baal ma Serigne Mouhamed Kounta di seen doom mu ngi doom doomu Serigne Moustapha mu Cheikh Boubé Kay di ko ziar mu ngi fekkoog Serigne Ndànk Buuna moom it mu Cheikh Sidi Muxtaar ñu ngi koy ziar fa tabarakallahu euh, bu ma saan di jóge tool ya ku ne xam na pulloo moom la daan wut bu ko lakkee ba mu ñor moom la daan bégali suma turandoo abi ay sharif yàlla bu ngeen ci waay def yàlla nee na li ngeen yàlla ma tax nee na maa koy remplacer mu ni may wërsëgal ak koon bi bu la neexee nga ni mooy maay tabaakoon bi mu ne wa huwa xayru raazikayn wa ma anfa'tum min shay'in fa huwa yuxlifuhu wa huwa xayru raazikayn dafa bëgg nga tabe rek ku la gën a tabe moo la gën a ñeme ku la gën a nay moo la gën a ragal maa la ko wax xaqiqa la ku la gën a tabe moo la gën a ñeme ku la gën a nay moo la gën a ragal te xadis ba di wax ni ab tab jigéen ne lool bun ci aljanna la ca des du ma ko wax yàlla na yàlla fayal rasulullah lu ñuy jàngale rek jàngale na ko tabaarakallah kon nag jot na ñu bégal ñëpp di fàttaliku bu baax sunu xarit daaw ñu nag moom ñoo nekkoon fii soob na yàlla ren fekk ko fi muy Mamadou Dieng Keleke yàlla na xippee aljanna démb moo doon ñeent fukki guddeem ma defal ko ko ca Ndiassane ñu àndandoo ñun ñëpp wallaay ndeysaan du ku ñuy fàtte cofeel durée tuddee na ma doom wallaay tuddee sama xarit doom muy bekkay mbay macha allah cofeel bu daan dox buy dox ba dégg nga ni chef bu jóg day taxaw. di xaar loo koo mën a doon nan ko mat fukk bare na pour jaay la bakkanam waaye man yi cofeel du réer bu ma soppee taman ma sopp sama turandoo boole naa koog moom mooy mu boole koog maamam rasulullah yal na yàlla doon ñu teral kenn kooku war naa tax lu la way defati nga baal ko yal na yàlla yërëm Mamadou Dieng yal na yàlla yërëm Mamadou yàgg yàlla yërëm mën ko jeg ibnu Malik ibnu Malik Anas nee na Rasulullah moo ma yar nee na def nag moom fukki am mësuma def dara ba mu ni ma Anas lu tax nga def ko mësuma gët mësuma yuuxu mësul fas kanamam ci man ne ci xaalam rek la ma tarbiya Anas nee na am na benn bis mu yónni ma diggante fi mu may yónni ak këram matul vingt mètres nee ma nekk ca samay morom di fo bu doon jamonoy tey la nga di xaritu yahudam mës ko tuuti tàndarma lu mu mës a saaba yee koy bokk soo ko indilee ñam danaan bismillahi rahmani rahim ñaari baaraam ya daal di cay comp seex la ca des mu jox ko tuuti tàndarma nabi daal ni di ko lekk par benn doom ba mu jeex te mayitu saaba mayoon na leen ci boppam lu ñu gis lu ñu xamul woon dañ ko koy laaj ñu ni ko yaa rasulallah mosoo lekk di nisaaw xulista mubarak min kulli aybin ya rasulallah ka annaka qad xulita kama tashaa'u kañ bëgg yonent waa ma ni ndax d'accord ngeen ma way ko yëg leen ni bu ma feebaree moo may faj su ma xiifee moo may leel su ma maree moo may nandal mi ngi julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant sunu wasila cheikh bu Mohammed Kunta nee mi ngi nuyu bokki suujaan gépp ci turu sunu kilifa yi nu àndal bàyyi koo ci xalifatul am bi tarixatil xaadiriya bi tarixatil xaadiriya maam cheikh al maam Cheikh al maam Cheikh al Bekkaay. bi. nee na mi ngi nuyu imaam yi dëkk bi. imaam yi tundu siin. imaam yi tundu siin. borom xam-xam yi. borom xam-xam yi. autorité yi. autorité yi. ba ci sëñ Amdi wan toog. ba ci sëñ Amdi wan mii toog. bokk ak ñun jotaay bi ci suba. bokk ak ñun jotaay bi ci suba ba nëgëni. bàyyi ko ci Cerno fële. ci Cerno. yëkkati nuyoo ak ziar. muy yëkkati nuyoo ak ziar. ko teg ci sa loxo. di ko toog sa teg sa loxo. nga ñu ko ci loxo cerno. nga tegal ñu ko ci loxo cerno. muy ñaan yàlla yàlla guddal fanam. muy ñaan yàlla yàlla guddal fanam. lii mission ci diine. lii mission ci diine. yal ko yàlla mottali. yal na ko yàlla mottali. ndax montre yu baax yëpp. montre yu baax yëpp. ñoo bokk heure. ñoo bokk heure. mooy. mooy. ñii woote ñëpp. ñii woote ñëpp. diine la ñuy wooteel. diine la ñuy wooteel. nañu ñaan rek. nañu ñaan rek. ñi ñuy wommat. ñi ñuy wommat. nañu dégg diine. nañu dégg diine. ba mën a topp diine. ba mën a topp diine. ngir bu ëllëgee. ngir bu ëllëgee. pertement bañ am. pertement bañ a am. ñu ngi nuyu. ñu ngi nuyu. daayire bi. daayire bi. ak képp koo xamante ni ak képp koo xam ne. jàpp nga ci bis bi. jàpp nga ci bis bi. ba bis bi taxaw. ba bis bi taxaw. ñu ngi lay sant. ñu ngi lay sant. ci turu daayire bi. ci turu bi. ci turu Suujaan. turu Suujaan. ci góor ak jigéen. góor ak jigéen. di sant maire mi fi bàyyi ko sànq sant maire mi fi bàyyi sànq. sunu kóllëre la. sunu kóllëre la. fépp fu ñu nekk ci tund wi. fépp ñu nekk ci tund wi. bu fa ñëwee. bu fa ñëwee. dina yegsi ci ñun. dina yegsi ci ñun. saafonteeg ñun. saafonteeg ñun. loolu ëpp na. loolu ëpp na. fukki at. fukki at. kon bu ñu ñëwee. bu ñu ñëwee. fekk ko fii. fekk ko fii. ci suujaan bala. ci suujaan bala. kontante lay doon ci ñun. kontante lay doon ci ñun. waaye. waaye. di leen soññaat rek. di leen soññaat rek. jëm. jëm. ci jaamu yàlla. ci jaamu yàlla. sëriñ ak taalibe. sëriñ ak taalibe. li leen boole. li leen boole. mooy jaamu yàlla. mooy jaamu yàlla. sëriñ bi jaamu yàlla. sëriñ bi jaamu yàlla. moo tax mu am ci yàlla. moo tax mu ci yàlla. lu ko nit di toppee. lu ko nit di toppee. ngir yàlla ngir yàlla. kon taalibe bi kon taalibe bi na xam ni na xam ni ki ngay topp ngir yàlla ki ngay topp ngir yàlla dafa am lu mu liggéey dafa am lu mu liggéey ci digganteem ak sunu borom ci digganteem ak sunu borom ba yàlla faggul ko ba yàlla faggul ko li seex bu wax léegi li seex bu wax léegi ndax nee na turandoom nee turandoom bi muy dem bi muy dem bokk na ci dénkaaneem bokk na ci ay dénkaaneem mu ni ak njabootam mu ni ak njabootam bàyyil naa leen sunu borom bàyyil naa leen ak sunu borom ak barke ak barke ndax boo bàyyeelee nit. boo bàyyeelee nit. barke barke. ak sunu borom. ak sunu borom. loolu mooy. loolu mooy. buy bul jaay sa ngor. bul jaay sa ngor. bul jaay sa diine. bul jaay sa diine. yàlla mi ma la bàyyil. yàlla mi ma la bàyyil. ak barke. ak barke. loo ñàkk. loo ñàkk. ñaan ko ci sama barke. ñaan ko ci sama barke. ñaan ko ci sunu borom. waaye ñaan ko ci sunu borom. moo tax néewu leen moo tax néewu leen bàyyi na leen ak jëmmam bàyyi na leen ak jëmmam bàyyi na leen ak liggéeyam bàyyi na leen ak liggéeyam déedéet déedéet barke bi ko yàlla may barke bi ko yàlla may la ni bàyyi na ko la ni bàyyi na ko ñoom waaye bàyyi naa leen ak yàlla waaye bàyyi yàlla mooy mooy bëggul ko bokkaale bëggul ko bokkaale diggante sa diggante sa diggante ak sa borom ak sa borom kon ñu ngi leen di soññaat ñu ngi leen di soññaat. ci jaamu yàlla ci jaamu yàlla. ndax jaamu yàlla. jaamu yàlla. dafay tax nit texe. day tax nit texe. boo mokkalee alxuraan. boo mokkalee alxuraan. alxuraan lay wattu. alxuraan lay wattu. te alxuraan lay ràmm ëllëg. alxuraan lay ràmm ëllëg. ndax sëñ bi da doon wax ni. sëriñ bi da doon wax ni. ah fu leen waxtu dabe. fu leen waxtu dabe. lépp lu ngeen di def. lépp lu ngeen di def. na ngeen ñaan. na ngeen ñaan. dem joxe ji waxtu suñu borom te dem joxe ji waxtu sunu borom. bu ñu déggee ñuy salaatu bu ñu déggee ñuy salaatu. xëy na waxtu dab nañu. waxtu dab nañu. ñu ngi sant ñëpp. ñu ngi sant ñëpp. di ziare ñëpp. di ziare ñëpp. di nuyu waa Samba Dia. di nuyu waa Samba Dia. boobu. nuyoo boobu. ñu ngi koy teg. ñu ngi koy teg. ci loxo Maymuna Sankare ci loxo Maymuna Sankare. ñu ngi nuyu. ñu ngi nuyu. waa Babou Kartoum waa Babou Kartoum di ko teg di ko teg ci loxo ci loxol njabootu bekaay gi mu nuyol sànq njabootu bekaay gi mu nuyol sànq ñu bàyyi ko Babacar ñu bàyyi ko Babacar di sant ñoom Arona di sant ñoom Arona soxna Faatu soxna Faatu ñoom ñëpp Pape Diallo Pape Diallo ak xale yi ñu àndal yëpp ak xale yi ñu àndal yëpp taxawal lii taxawal lii lii moo gën lépp lii moo gën lépp ndax ndax fi may terminer rek muy dagge mooy mooy sëñ bi day santaane ni sëñ bi day santaane ni jot gi ngeen jox téléphone yi. jot gi jox am jot ci téléphone yi. na ngeen koy am jot ci ruq. na ngeen koy am jot ci def douze mille basmala. def douze mille basmala. fi daawu seen bopp. fi daawul seen bopp. ndax ku xool. ku xool. téléphone yii. téléphone yi war ngaa xam ni. war ngaa xam ni. boo bàyyee doom it. boo bàyyee doom. dootul am jotug. dootul am jotug. di la fi daaw di la fi daawul. bi ci des. bi ci des. mu ni mu ni na ngeen bari na ngeen bari lu ngeen di julli ci yonent bi lu ngeen di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam day defar xol day defar xol day dàq kiñaan day dàq kiñaan day dàq ñàkk day dàq ñàkk day dàq soxor day dàq soxor day xëcc yërmande day xëcc yërmande day xëcc jubale day xëcc jubale sa diggante sa diggante ak sunu borom ak sunu borom day indi rusaange day indi rusaange sa diggante sa diggante ak sunu borom ak sunu borom kon ñu ngi ñaan yàlla ñu ngi ñaan yàlla yaakaar gi ngeen am yaakaar gi am ci kër Cheikh buntu yi yàlla bu mu tas yàlla bu mu tas waaye nag na fekk waaye na fekk moom yaakaar ji mu am ci yaakaar gi mu am ci yéen yàlla bu mu tas yàlla bu mu tas muy jaamu yàlla muy jaamu yàlla gin leen sant ngeen nekk ci ngeen nekk ci te fonk fonk seen i waajur seen i waajur waajur dafa am solo yaay jur dafa am solo sëriñ bi loo fonk sëriñ bi loo ko fonk fonk boo xëyee sa kër boo xëyee sa kër bàyyi sa waajur bay sa waajur mu dékk si yoo ndox mu dékk si yoo ndox nga ne ko maa ngi dem nga ne ko maa ngi dem seeti sëriñ bi seeti sëriñ bi mu dékk ko juróomi nit mu dékk ko juróomi nit nga dem kër sëñ bi nga dem kër sëriñ bi fekk doomam fekk doomam wala soxnaam wala soxnaam dékk si yoo ndox dékk si yoo ndox nga ne ko bàyyil nga ne ko bàyyil yéen waru leen a laal yéen waru leen a laal ngir lan ngir lan yaakaar yaakaar barke barke ci sëñ bi ci sëriñ bi bu fanaanee woon a julli bu fanaanee woon a julli wala mu fanaanee jàngal xuraan wala mu fanaanee jàngal xuraan ñaanal nga di na ñaanal yàlla du def ci yow barke yàlla du def ci yow barke ndax bàyyi nga bàyyi nga fa nga waroon a sàkkoo fa nga waroon a sàkkoo barke muy say waajur muy say waajur tey kon na ngeen xam ni na ngeen xam ni pour sëriñ bi ñaanal la pour sëriñ bi ñaanal mu nangu mu nangu day fekk day fekk nga am nga am ñaanu waajur ñaanu waajur ak ngërëmal waajur ak ngërëmal waajur sëñ bi comme waxtu yu dugg comme waxtu yu dugg na kàddu yi mënoon naa gën a gudd waaye dañuy def ñaan comme julli gi dab nañu bisimilah sëñ yax ya Ah, di taawu xalifa bi ngeen eh, dékk seeni loxo mu def ñaan nee na ñu def ñaan nee na ñu jàng faatiyatul kitaab ayatul kursiyu falaxi ak naas salaatu ala nabi ñaanal sëñ Mohamed mi digganteem ak jaamu yàlla yi taalibe yi seex ak maamam tànk yi mu daan dox digganteem ak taalibe yi di beesal seeni pas-pas ci diine di beesal seeni pas-pas ci tarixa bi tànk yooyu mu nekkee yal na ko ci yàlla jàppale ci daraja yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ni mu taxawoo kër gi dañuy seenu ci moom yàlla dimbale ko ba mu am ci ndam bisimilah. amin amin amin amin ya rabbal amin amin amiin yaa amiin yaa rabbal amiin yaa rabbal amiin amiin yaa rabbal amiin amiin min yal na yàlla nangu bi barakat Seydina Muhammad ñu teewe Thank you. محمد Bienvenue sur Salam Vision.